Hmm, taxawal ma xool tey ajaratu Mamy Diop dégg ah, yóbbu naa la màkk loolu yiw yii laay def ma maami mami Diop yaa yu sooda maa ngi lay jox sa wàcc wàccuwaay nga tax sax déwén ma pare nag waaw waaw gis nga gis nga di la sargal mm. ndax tamit euh, seetlu naa ni daal bi weeru safar wi duggee ba léegi mm. fa la macha allah daal yiw gi dafa gën a yokk wax naa la démissionné naa ci association waaw association wengare bokkatoo ci bañ nga ba tëdd fa tabakalla macha allah kontaan naa daal maa ngi nuyu say mbokk say am di jàmm sa yaay yu baax yi sa bàjjen yu baax yi fa tabakalla man am nag benn bàjjan bu la tëkku sànq. tëkku ak li ma wax nii lu baax Cheikh Aïda ah. sama yaay. yow bàyyi ma nag kaay wax la kooku nag kooku nag ci weeru safar bi sax non la ko bu mag bi nag man ka ko doon seexal moo ma tooñ yëguloo loolu pourtant xoolal nii lii la ma ko waxee nee na ma eh, après mu teg ma teg cala ba cay ay dañoo ki doon ki ko doon seexal moo ma naqadi mami sa wàcc door nañ daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag leen son Mandela tëpp koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aaday di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum mu yàgg fi loolu tawér ak mbooleem xalif généraux yi nag Sénégal réewum jàmm la ko fii xuloo di xus booy lay du tefesu kon lépp nanu ko def ci dal ndax dal rek kay sunu mbokk rawatina ci nag ci weer wu sell wi ñu nekk yaa booy xam nga waxtu wi nag moom damay kontaan ndax damay wax kamara ji booy ne ko hmm. loxo yi dellu seeti na yaa xajjaa damay yëg ñaan gi moo tax gisoo temps yi sax moom màggal ndax damay yëg ñaan gi bu baax maam bëy di ziar mboolem sama yaay yaay mm-hmm. Nafi maman Kinushka di la wax ne sama yaay nee na bëgg na lool ci yow ndax gis na ni nga ñu jàppee ak yaay déggéen di kontaan lool ci sama yaay yu baax yëpp ak sama bàjjan Awa Diop ak bàjjan Cheikh Aïda Diop maa ngi koy ziar lu bari moom it di ziar yaa astu yaayu Ndoy Baan ak meer ba euh, maire kay Ndoy ak ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar ak mari di ziar nag sunu invité bu màgg bi waaye di ziar itam sunu invité yi fi jaar fan yépp man nee naa daal li ma wax sëñ ji jiili démb nee naa ko sañ jiili fi ne moom dangaa toll ci di ma di ma bégal man lii mooy sama mbégte mm-hmm. Mm-hmm. ndax nag man euh, nëbbatu ndax ragal pété day xañe wërsëg man Cheikhul Khadim rek laay dund donte nu ma mën di mel na jërëjëf yaa booy bismillah tabarakallah masha allah mami ñu santaat yàlla julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. euh, sant bu baax a baax waaye am mbégte jamono ji fekk Zeyna à la régie mi nga xam ne moo yore permanence téléphonique bi waaye tamit yore permanence bi ci li nga xam ne moo di Facebook bi maanaam nouvelle technologie yi Tadege. waaw ci loolu ne. maa ngi ci jàmm maa ngi ah, sant bu wér. zëy rek ci xale. zëy rek ci xale waaw. ni ñu koy waxee doyul bay des. noonu la ko Soda Mbacké di waxee. <laughs> ah mi ngi wax. <laughs> bisimilah bisimilah. Tadege nuyu naa la. ñu ngi lay fay. baax. maa ngi lay fay rafetlu invité. nuyu képp kuy téléspectateur Télé Futurs Médias. Hmm. toog jàkkaarloog sa télévision seetaan sa émission di wareef ñu ngi lay nuyu di la ziar bu wér a wér. Tata Degen nag tey malheureusement xëy na duñu mën a dugal téléphone à l'antenne. Hmm. waaye na téléspectateur yi xam ne bu ñu woowee mën nañ leen jël ci suuf. Hmm. jël seen seeni ay témoignages te mën nañ tamit gagné paasu màggal. lu ne ci téléphone bi. ah téléphone bi de mënul dugg. du mën a mais man dinaa ko mën a jël. est-ce que du mbotaan. loo bàyyi Cheikh bi waxee mbotaan. te mooy li bépp xeetu cat rek kon cat la. Mm, mm, kon cat la kon cat la mm, la waaye nañu xam ne mun nañu woote ba tey parce que euh, bu ñu wootee. dinañ jël euh, li ñu bëgg a wax par rapport ak màggal Touba bi. te mën nañ gagné tamit ci dépense euh, plutôt paasu màggal yi tata dégg ngeen. numéro yi di 88 628 22 22. 88 628 04 05. wala 88 628 65 65. émigré yi ne bitim réew nag fas yéene ñëw màggal wala ña nga xamante ne mënuñoo ñëw màggal tamit mun nañu woo ci numéro boobu di double. 0221. 33 841 22 99 Tata Déguène hmm. ñu mën cee jokkoo ñun ci màggal gi ba tey waaye ci lépp loo xamante ne tam soxla la par rapport ak groupe Futur Média. Hmm. en tout cas ñu ngi leen di xaar si téléphone bi ñu ngi leen di xaar tamit ci page Facebook bu Wareef. Hmm. Euh, démb dañoo waxtaane woon lan moo war a nekk comportement bu euh, invité yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene dem Touba. Euh, waaye tey Tata dañuy wax rek suñu mbokk internet yi. ñu wax ban message lañuy lancer chauffeur xamante ne ñoom ñoo nar a euh, daw voilà jóge jóge ci biir réew bi jóge fu nekk ci Sénégal fas hmm. yéenee dem Touba hmm. euh, yan message dañ leen di lancer daal tata di gën pour ñu gën hmm, wax ci comportement chauffeur bi sur chauffeur yi surtout yan conseiller leen leen di jox tata di gën tey loolu la ñu laaj suñu mbokk internet yi ci kanam tuuti dinaa ñëw ak seen i tontu loolu foor na kontaan nañu sëy Fatou la macha allah ñuy santaat yàlla julliwaat ci sang sang yi mu di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi am mbégte nag comme niñ ko defee rek fan yi yëpp ñëpp euh, ay borom xam-xam fatabakalla macha ñoo xamante ne dinañu gindi bu baax a baax ci li nga xamante ne ni moo di yoon wi di santaat yàlla am mbégte nag dalal Serigne Saliou Samb mi nga xam ne fatabakalla macha allah kenn dootu ko présenté nga xamante ne mi ngi waxtaan waxtaan yu am solo nee naa ko euh, sànq rek dama ko yàgg euh, topp ci ay waxtaanam fatabakalla mhm. macha allah Serigne Saliou dañu lay nuyu di la sargal di la jox nga nuyu askan wi aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irahmani irrahim alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddiini wa radiallahu an seyxina ahmadul qadim wa ala qudwatina al azim maam cheikh ibrahima fall babul muridin barkeb cheikh abdul karim mbakke faddilu ñu ngi sant yàlla di julli ci sayiduna muhammad di feddli waat sunu koolu téef ci sëriñ tubaak maam cheikh ibrahima fall ñoo ngi baluwaaq mboolem mbokki jullit yi di leen balaq di ñaan yàlla sans borom boo leenu jéggal ñu ngi ñaan yàlla Cheikh Sidil Muxtaar yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanale Serigne seex Jëm Fall waaye ak képp kuy sol sa dàll te lislaam tax nga sol ko ñu ngi ziara mboolem koo xamante si nii yaa ngi yëngoo ci groupe Futurs Médias Euh, rawatina yéen jëm yi nga xam ni yéenoon dalal ci émission bi di soxna Degeen ak soxna Mami waaye di ziyaara bu baax sëñ Abdul Xaadir Ñang sëñ Jili ndax moom suñu xarit la ah, suñu wëllëre la ku jaxasoo ak suñu jëmm la mu ngi ñaan yàlla yokk ko defal ko ak bëggam ci barke Serigne Touba Xadimi Rasul ak mbooleem kuy liggéey ci groupe bi waaye di ziyaara mbooleem ñi nga xam ni ñoo safoo télévision bi di ko seetaan mm-hmm. di ñaan yàlla kàddu yi ñuy waaj a yëkkati mm-hmm. te mu jëm ci Seexal Xaddiim mbooleem ku ko dégg mën yàlla mën na mu doon ci yow fajuk aajo adduna ak alaxira yàlla na ko doon bi xurmati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim amin jërëjëf amin amin sàmb bég nañu loolu fa tabarakallah masha allah xam nga jamono ji nag suñ ci tollee dañuy sargal suñu ay yi nga xam ne mami mhm. mhm. masha allah kenn dootu ko naatable te waxtu yi la def cin cin waaye nee fan yi su kilifa yi toogee damay bàyyi cin cin ak sa dama xam ne heure bi laay euh, sëñ ay ca ay ca euh, ñu ànd fatabakalla macha allah. Uh-huh. ak euh, suñu sponsor ñi nga xamante ne nekk ñoo ñuy gunge di wéy ba tey ci seen émission bi di wareef di wax rek ne fatabakalla macha allah lii nga uh-huh. xamante ne nekk moo di Coca Cola. mi uh-huh. ñi nga xam ne moom la ñu àndal moo ñuy wéttali ci moment de partage moment de bonheur bu ñu mën a am rek fatabakalla macha allah di wéy ba tey ci seen émission maa maa maa ngi la doon defaral waaye. waaye ah, fu mu nekk ni maa ngi la doon dalal ay ca ay ca bismillah ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca ay ca suñu moment de bonheur yi moment de partage nduy baan moo moo ma daan defal yii de sëñ bi oh, waaye <laughs> waaw waaw ngeen ngeen waa kay toogi <laughs> yi ñu ànd ak coca cola bi nga xamante ne mhm. nee naa bépp moment bu am solo rek coca cola mi nga moom ñu ciy wéttali atuma kàlla macha allah coca cola bi nga xamante ne ne que excellent goût rafraîchissant la am xam ngeen ko waaye tamit coca cola bi nga xamante ne ne que kër gi foo dem moom ngay fekk ci ci moment yu am solo bu ñuy wéttali suñu njaboot yi dëgg la nee naa yow ñemewoo ñi bite doo yóbbu coca cola kon sooda mbàkke engagé daf may génn <laughs> noonu nag euh, li coca indi nag te mu ñor ñu loolu mooy coca zéro mhm. bi nga xamante ne ne excellent goût rafraîchissant même goût que coca waaye amul suukar amul calorie mhm. dañuy dund jamono joo xamante ne nag képp ku ñu indil boisson boo xam ne amul suukar amul calorie defe naa ne ñun ñii la jàppale ba pare neex teg ci tamit ak caroskin mi nga xamante ne gamme bu am solo boobu à base de carotte bi ñu si sivop indil nga xamante ne ne que day noddante yaram naam day ralentir vieillissement maanaam daal ay qualité yu bëri mi ngi ci caroskin mhm. ànd ak sivop ba tey rek ñuy woye ci seen émission bi di wareef télévision Futurs média seetu askan wi fatabakalla macha allah fas yéene ñëw ci thème bi nga xamante ne waajal màggal Touba ila Touba ci lañ nekk boobu ba léegi mhm. ñu am mbégte nag toog ak conférencier bu rëy fatabakalla macha allah bu màgg mhm. Serigne waaye sëñ Saliou balaa ñuy dem fenn dama la bëgg euh, laaj nga may ñu ci tukki sëñ bu mag bi tukkeem tukkeem bi sabab màggal bi tukki bi. jërëjëf. soo ma Degen ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax. ndax ak lu mu mën a doon. Mm-hmm. bala nga koo tàbbi na nga ci sant yàlla. Mm-hmm. ndax lu yegg rek yàlla la. Mm-hmm. dinaay wax souvent ci suma ay waxtaan nii lu gàtte ni diggante bi ma sëñ jiili woowee ak léegi rek di nga fi dégg ku faatu te deful yàlla lu mu ko yóbboo yow mi nga xam ne yaa joxe woon rendez bi defaloo yàlla lu la fi bàyyee ba nga matale ko kon alhamdulilahi ala kulli lépp lum mën a doon sant yàlla lañ ci war a jiital ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax sëriñ Tuubaa li mu yaree woon mooy lu yàlla dogal mu neex la yarewul woon ci nangu dogalub yàlla dafa yare woon mag ñi ci lu yàlla dogal mu neex leen bu fekkee nangu dogalub yàlla la forcément la parce que yàlla dogal na ko dina am nga nangu dina am nangu woo dina am waaye mu neex la nag mooy fond ba loolu la Sëñ Tuubaa yare woon mag ñi li nga xam ni mooy tukki beet dafa am sabab sëriñ bi bi mu sañcee Touba Mbacké sax fa juróom-ñaari at nga xam ni tuubaal la ko dëkk bàyyi ko Darou Salaam wax nañ ni jamono bi Cheikh Mouhamadou Moustapha ki ko njëkk wut alkarim di gane jamono ci la réer jaam ñi xamuñu fu mu nekk ndeke Touba la gisoon leer gi di ko seet ba gannaawam lañ tudd Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Moustapha mu ngi feeñ fukki fan ci tamxarit yow ma asura ku ne xam na ni lu bari xaw na ci sunu digg ak sunu borom ak yonent yu bari la leen yàlla defal ci bis boobu la leen ko yàlla defal ki war a njëkk a wutu sëñ Tuubaa yàlla nga ko feeñal ci bis boobu muy yow ma asura ci la Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké feeñ sëriñ bi dellusi si as ndiir mu dellu di sañ ci dëkk ba bi mu demee ca sanc ba ca la Alaaji Fallu Mbàkke feeñ mhm. ñoom ñaar ñëpp nag 1306 lésir la ñu feeñ mhm. moo tolloog 1888 mhm. miladi waaye 6 mois 17 jours la sëñ Modou Moustapha magi sëñ Fallu Mbàkke ñoo bokk am at nag ñoo bokk 88 ci 1888 ci atum nasaraan bi ñoo bokk wasasin 1306 ci lésir gàddaayu Seydina Muhammad waaye ñu magante 6 mois di 17 jours. waaye bi suñ fal waree feeñ fekk na sëriñ baa nga sax ci dëkk ba moom. waa kër gi nag fekkagul ñu ñëw tuubaa waaye sëriñ baa ngi sax ci dëkk ba. ba yu bari xew na ci. waaye tey waxtaan wi jëmul noonu. moo ngi jëm ci tukki bi. mu nekk fa juróom-ñaari at. dernier atam ci tuubaa mooy ama bay sa si 1312. kon 1306 la sancoon. 1312 ca fin ba nga xam ni sept ans yi moom wér na. ñum dëkk Touba Mbacke nga xam ne suñ Touba Touba la ko dëkk. ca weeru koor wa dernière semaine. muy def l'intikaaf. maanaam xalwatu jooju nga xamante si nii. ñu baax ñu bari. ca yonent bi lañ ko jëlee. daana ko tëju. fukki fi fukki fan yu mujj yi. Mm-hmm. suñ Touba di ko def. Mm-hmm. yonent bi fekk ko foofu looluy sababu tukki bi fekk ko fa xamal ko ni ahmadu sa njàmbaare ak sa ngóora tax na ba say at manqué na ñetti weer ngir nga doon borom jamono ngir nga doon xutbu zamaan waaye tey ji dama ñëw ngir nu anticiper ko ndax sa njàmbaare fekk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw ci sëriñ tubaa du ay nelaw nag fii ci jàkkay sëñ Mbàkke Madina jii ci daaru Kuddus la ko fekk du nelaw suñ tubaa nee na daa ñëw ànd ak waa ahlul badar bi mu ñëwee ahlul badar ñoo ko dara sallallahu alayhi wa sëriñ tubaa nee na hmm. bi nga xamee ni wax na ma loolu hmm. li rajo ji baax baax baax ma ni ko bëgg naa lu ëpp la hmm. mu ma ahmadou ana loo ni ko bokk ci ñii nga àndal mu ma ahmadou loolu mel na ni lu faat la lu mënatul a nekk la sëriñ tubaa nee na ma ni waaye ni ko loolu de laa bëgg. Mhm. mu ne ko Ahmadou li tax ma ni la lu faat la lu mëntula nekk la. Mhm. mooy fekke woon xare ànd ak ñoom mhm. turandoog ñoom deret rek moo ko mën a mënoon a maye. wala bo ñu teg la ci natt loo xamante si nii njortu naa ni sa ruugi attanu ko faatu mën na la cee fekk te da nga maa bëgg bëgg goo xam ni wëlbatiku naa bëgg la bëgg gu ni toll te bëgguma nga wàcc ca liggéey contrat bi ngay signé yàlla ñu koy résilier Cheikh Ahmadou Bamba ni ko mm. ruu gi bindu ma ko bay xam kañ la fi jógee ba mën mm. ko fee téye mm-hmm. waaye su fekkee ni mm-hmm. yàlla mi bind ruu gi man mm-hmm. na maa téyel ruu gi am naa jom ak ngoru décroché li ma bëgg a décroché Pastef ba loolaay pas pasub Cheikh Ahmadou Bamba yonent bi waxanteeg sans borom sallallahu alayhi wa borom wax ko mbooleem lu ko ci teg Sëñ Tuubaa ni ko nangu naa naa jot li may wut rek ñu daal di signé. Mm-hmm. nga dégg sëñ Moussa Ka di wax ni. Mm-hmm. buur yàlla daa di signé jox yonen ba. sallallahu alayhi mu signé gaaya daa di jiital Bamba. Mm-hmm. lisaanu xaal daal di wàqanteeg bamba mhm. ca saaru yuusufa mu téeñu yan ba mhm. bamba ni maay nama dalub lislaam bi mhm. sëf ma jóor leen ma dinaa ko jaamu yàlla ni astaxalisu teg li naf si maa gën a yay ci du duna am si dégg nga keroog la ñaan buur yàlla yoonu géej ga ngir ga liggéeyal mustafaa may géej ga kon loolu moo jiitu mooy sababu dem ci géej gi moo jiitu séjour Mbacke Bari Jolof. Mhm. parce que Mbacke Bari la jóge dem ci géej gi. Mhm. mais li mu waxante ci Touba moo jiitu séjour Mbacke Bari. Mhm, bi mu demee ba koor gi jeex nag ci la sa borom xamal ko ni. dëkk bii bi nga koy sanc yow yaa waxoon ni nan ko def pàkk bu garanti. wajal xarimana xariman amina wa kun bi hifzihi kafilan damina yow yaa waxoon ni naa la ko garantil pàkk bii garanti googu nga ko garantil nag tax na lor la fi fekk te loolu ñun sax gis nañu ko ndax ñi jële fraude bi ci bitim réew su leen douanier yi toppee buñ duggee ci pàkk boobu mu ni woon yàlla garanti ko ñu bàyyi leen dëgg la Tuuba waaw nag sa pàkk bii da ko koo te yaa ma wax nii. juróom benn côté ñoo am. na fi jàmm ak yiw di bàyyi ko di sa mbërtalu ci dëkk bi. kon ay du fi dugg. yaa ma waxoon wajbul lahal xayra min al jihaati asitti six coins yi kanam ginnaaw ndijoor càmmooñ ak kaw ak suuf suñ tubaab ni na fi jàmm ak di bàyyi ko di ci dëkk bi coins yi am yëpp jiha yi am yëpp na fi di bàyyi dugg ci dëkk bi kon lor yi du la fi fekk da war a génn dëkk bi loolu génn Serigne Touba Touba. parce que fa nga toog du la fa mën a fekk. du la a fekk parce que yaa ko garanti lu te garanti naa loo ma ñaan may naa te am na ba noppi. am na ba noppi. fii lor du la fekk kon da ngay génn dëkk bi. léegi ñu korité mu am 13 jours après korité. fukk ak ñett ca kori wa. Serigne Touba départ sañ ci Mbacké Bari Jolof. parce que waaj na pour dem munul ñàkk a dem. te dem gi munul a départ fii parce que fii lor du ko fi fekk. mu départ sañ ci Mbacké Bari. loolu mooy bay sa sin 1312. nekk fa kori wa jeex kori mooy jour mhm. zul qaada mhm. mooy diggu korite mhm. diggu tabaski zul xijja mooy aw tabaski zul xijja nag su jeexee rek at mi jeex ñu dugg jay sa sin 1313 ci muharram bi maanaam ci tamxarit bi la ñuy dugg 1313 ñu dugg 1313 benn weer mu jeex beneen ba ci 18e jour la yàlla wax sëñ Tuubaa ni ko mën ngaa wuy ci séjour boobu mu def nag ci baar yi wax naa la sababu baatin bi mooy li nga xam ni moom la ak yàlla ak rasulullah sababu zahir bi mooy bi maam Abdouloo mi daan liiral gouverneur courrier yi ñëwee di seet si Serigne Touba nan la tooge ci Jolof parce que sanc na Jolof ñu dégg ko fa ak mbooloo maag riir ma te xamoon nañ ni murit yi gëm nañ ko gëm gu tool ni nga saxaaba yee gëmoon rasulullah ba tax na suñu loon woon xare leen nu xeex ñu ragal ko ñu bàyyi ko xel nag mhm. parce que dinaa la wax lu gàtt foofu mhm. mooy diggante sëñ Tuubaa ak rasulullahi mhm, mille trois cents ans la waaye Seex Ahmadu Bamba rek ci gaa yi yàlla yi moo doon yonent bi ci saw xeet nga defar leen ba yàlla jaral leen seen bakkan yi gënal leen ñu mën a dee léegi ngir yàlla mën a joxe ba duñ desee dépense suba ngir yàlla yii sëriñ tubaa ko donn ci yonent bi mhm. bi ci des troisième bi mhm. mooy sëriñ tubaa moo donn ci yonent bi ku jébbulu bu gisee ku jébbulu moo koy gënal boppam mhm. te loolu la yonent bi dafa defoon ci saaba yi moo tax dinaa wax souvent ni bu yàlla waxul woon yomal xiyaam dañuy atte ñëpp ci seen mm-hmm. njiit sax mm-hmm. sëñ Tuubaa bu génnee dina ne sama waajaa mm-hmm. parce que li mu defaat appuyé li mu copié ci rasulullahi moom rek ko ko moom rek ku baax ku ne nag jaar na fi baax nañu nangul nañ leen ko mais fexe ba saw ñooñ bu xare badar amoon ñu dem sëriñ tubaa rek ko amaat ci mbooloo fexe ba saw ñooñ liggéey ba at mi jeex ñu jox ko dem yalwaane dunde ko yàlla jaral leen alal mhm. suñ tubaa rek ko amaat mhm. fexe ba saw ñooñ mhm. ku jàkkaarloog moromam muy sa seetu te yonent bi moo waxoon ni laa yutimma imaanu ahadukum xataa yuhibba li aqihi maa yuhibba li nafsi dafa waxoon saaba yi leen kenn ci yéen ngënam ngëmam du mat lu dul ki mu jàkkaar mu yéene ko li loolu nag yëfu secret la parce que mën naa jàkkaarloog soxna mami ni ko soxna mami day bëgg naa la lool li ma la yéene laa yéene sama bopp da koy gëm rek ree mm-hmm. waaye fii la nekk mënu ci xam dara mm-hmm. dëgg la loolu lu muy lu ñuy xam mhm. sëñ Tuubaa nag mhm. dafa fexe woon ba mag ñi ko wër mhm. ndongo yi mu yar yëpp mel noonu kenn ku ne sa moroom gënal la sa bopp xam naa su fekkee waxtaan wi ñëw ci côté ñi mu yar dinañ ci ñëw foofu paquet la paquet la paquet la sëñ Saliou foofu laa lay abbee dinañ ci ñëw foofu laa lay abbee yàgg fi loolu te wér amiin ndax tamit euh, euh, waxtaan wi am na niveau te tamit li ñu bëgg rek bi ñu dëgmalee lii mooy teewaayu ñu mel ni yow fa tubaakalla macha allah. Mm-hmm. nga xamante ne ne que mami defe naa ne ne daf ñu fi ñu yóbbu fu sori. sax waa diaspora beeg àddina bi yëpp a ngi toog. non a a bëgg ah ñëpp a bëgg xanaa di leen ñaanal yàlla a a mm-hmm. xam naa ne ñii daal nit ñu baax lañu. xam nga man fan yi damay jàngaat maa ngi dundaat leneen. yaay dëggeen xam nga mooy li ma la doon wax démb rek. Mm-hmm. loo xamul euh, na mu toll. mënoo caa jariñu mënoo caa am. nanu xam ne daal comme ni ko sëriñ Sali waxee. ñun dañoo jóg ngir di fekki ko màgg ku mat koo xamante ne ba muy liggéey sunu maam yi kenn ci moom toppul woon ci ginnaawam naan askay wala di dem di ànd ak moom nattu ba kon kooko su liggéeyam nattoom ba nattu ba teer mu yéenewaat ñu ko ñun jullit yi ñun taalibe yi yaakaar naa ko dem ba ca dëkkam bee am na leneen noo fa war a duggee am na noo war a doxee waaye am na noo war a waajee tam bala ngay génn fii mooy delluwaat di sellal di sellalaat di sellalaat te li ñu doon wax fan yëpp kuy dem na nga wut sab yóbbal bokk boo demee jox ko waa kër ga nga dalal bu kenn dem ne gongu ne bakkan ña nga dalal itam yéram leen ndax mënoo ci dal naan du ma naan café mhm. café meew lay naan mhm. du ma lekk cere du ma lekk lii mhm. donte lekk yëpp a nga ne fa gàññi ndax yaakaar naa kuy dem bay gàddu say bool naan ñi ci mbedd mi kaay leen li ma lekk le ma ko luñ lekk jaaxalu ma waaye jikko yi lañ war a defaraat beneen bi ci topp mooy booy dem di fekki ku yorum njaboot nga dem jël sa valise mel ni comme kuy dem carnaval comme ni ñu ko waxee démb mhm. jël mboolem la nga am ci takkaay la nga am ci leneen ak leneen def ko fa mhm. ñëw wàcc ci kaw nit ki nit ki xëy na dina la ko bëgg a dencal wala dina ko leneen wala nga jël sa valise teg mhm. ñiy gàmmoog ñiy raas démb bokkuñu da nga ne sàcc gi léegi parité la ëpp parité gi sax léegi dafa ëpp nag ndax léegi sàcc gi léegi ci côté jigéen ñi la gis nga gone yu góor yi ceg daaw naka sàcc ña ba daanaka duñu dugg sax leen di xaar ñenn ñi ci xaw di rëcc mooy ñiy di tafu ay portable ak dem àndandoo ci daayira yeeg ci euh, mbambax yu mag yi ziyaar ak yooyu mm-hmm. waaye sàcc si dëggantaan léegi jeeg ji solu ba jekk la mm-hmm. ñu ngi ci biir kër yi mm-hmm. indaale seenub saak xooluñu lu dul lu ñu raas lu ñu yóbbu nga jël sa takkaay yëpp def ci sa valise buñ ko nee doññet nga indil tuuma indil coono ka nga dal ci këram kon loolu yëpp nañ ko sóoraale xam ne dañuy dem di wuti lu baax kuy wuti lu baax nag mënoo dem ne gongu nekk ci sa jàmm ak sa leneen beneen bi ci topp mooy démb da nga suluñu lu am solo muy yoor yoor bi nañ ci bàyyi xel rawatina ci ñun jigéen ñi maa nga ca togg maa ngi ci leneen ba tax yoor yoor ba rëcc la amoo ca dara wutoo ca dara ñëw naan damaa màggali woon defoo fa leen lu dul sëriñ buñ ne ab sëriñ a nga fee nga ne xaaral ma sañ sa dem raasaatu ji ko ñoom tal nañ leneen seen maama xew la ñoom dañuy liggéey ca bis ba la ñu yor ñu di ko def ci seen biiri kër kon ñooñu nekk ñu fa di xool ku leen raas ku leen nuyu beneen bi ci topp mooy joxante rendez-vous yi dañ fay joxante rendez-vous nag mm-hmm. nañ ko waxante mm-hmm. numéro téléphone yaa ngi commencé mm-hmm. naa dafa am génn góor gu mu son di doxantu romb ay gone mu naan ko kon bàyyi nan nga mu ne ah kon sama màggal gi joxante rendez-vous la ci la jógee ko def màggalu bëccëg ba tey kon nañu xam ne màggal du pour joxante rendez-vous du ay ne dañ fa war a dem di soloo ko summeeku di dugg ak génn ku nekk nga bëgg a gisee moom ku nekk nga bëgg a dem ci moom raasaatu bi daal nañ ko bàyyi ndakaaru ba dellu siwaat te dem xam ne dañuy wuti lu baax dañuy jaamu ji li ma waxoon démb laay waxaat nanu ko def suñu aj Mhm. kese mhm. fatubarkalla macha allah ba tey rek mami yi fi nga génne am na solo ndax nee naa la man invité yi suñ toogee nekk ci baatin bi foog ma lay jox zaayir bi ndax am na yenn yoo xamante ne yaa ca mën a yegg man man mag laa fatubarkalla macha allah kon sëñ Saliou Samb ñu dellusi ci ñi mu yar ak ñi ñu jur mhm. ñu dem ci loolu waaw dama nekkoon ci bi mu ñëwee Jolof te maam Abdoulou seet si ko fa ci tukki bi jour bi mu ñëw dafa tombé Samba bi ñëw fa. xam nga loo gis day am sabab. bi maam Abdoulou ñëwee. fekk Samba Laobé ñëw. maam Abdoulou xamul lu indi Samba Laobé. waaye gis nañu dalal fee Samba Laobé dalal ko fii rek. fexe na ba nuyu Samba Laobé nag. te Samba Laobé moom it yëlif bu mu yëlif Jolof. doon chef de canton ba. moo taxoon mu ñëw. tax dégg na sëñ Tuubaa ci dëkk bi xamul nu mu demee mu ni naa ñëw xool ko. mu toobee maam Abdoulou ñëw xool si Sëñ Tuubaa na mu toogee. Mhm. ñu daje fa. Mhm. mu daal di yàq bopp Samba Laobé mhm. yàqul yàqul bopp yàq bopp moom Abdou Lo yàq ko nag. ngir sax ñu war ko mere wala ñu war a frustré wu si moom. dañ war a xam ni. sëriñ tuubaa moo waxante woon ak yàlla war a dem. munu la ñàkk a dem. te sabab ba di jaaree nag par force mu dem. te faaw mu am sabab. parce que. liggéey bi bi mu d'accordee xam na ni duñ ko defee Sénégal te moom aw fas la amoon te fas bi mënu ko yóbbu fa mu koy defee kon faaw mu ni rënkum ak am moyen transport kooku jël ko ci moyen transport am teg ko ci wàcc ko fa muy liggéey mu liggéey gagné ñëwaat nii la affaire bi demee tubaab bi jàpp ko moo jàpp tubaab bi mais faw mu am fu mu jaar looloo jaar ci maam Abdoulaye bi muy dëpp la jaar Louga ci ki doon réparé le chef de canton yi seen cachet yi mhm. parce que ku ci bind lettre tubaab da nga ciy def sa cachet far gis fa cachet sàmbalaw bi parce que lu war a am la mhm. faw mu am nu mu jaar mhm. mu fo lijjanti naxante ba jël kase ba taqal ko dóor ko ciw kayit ci feuille bu weex tàll bi dem na këram bind wax ni gouverneur général man Samba Laobé ak Cheikh Ahmadou Bamba Lat Joor dalaa waxoon ni ngeen daje déqale waaye nun waxuñ la nu daje fenn fu nu la fekk baax na ñoo ngi dal ci sa kaw daal di dugal ca courrier ba te moom mi ko bind mooy lire courrier yi bu gouverneur gisee ni ko ne kon plan ba tàmbali na waaw mm-hmm. bu ko gisee mm-hmm. lii nag mu ne ko aw ah, ñii moom yaa ko déggal sa bopp mm-hmm. te gis nga kase bi kon ñoom la léegi nag danga may yebal ma jëli wala ma ay space ma jëli leen. li mm-hmm. mooy sababu tukki bi. Mm-hmm. moo tax maam Thierno mi nga xam ne mooy rakk Serigne Touba. Mm-hmm. bi ko Serigne Touba yónni si gouverneur bi mu waxantee gouverneur ba pare gouverneur dañu ko sa mag jooju ngay wax. ñi koy jëlee départ nañu. suñ ko fa fekkee dinañ ko andi wala ñu andi mu néewam. dañ ko andi muy dund wala ñu andi ko mu faatu waaye dina ma fekk fii. loolu tax maam Thierno bi mu tàggoo gouverneur yi jëm si waat Mbàkke Baar yi. xamul fu mu parce que bëggul tubaab bi njëkk ko ci sëriñ bi mm-hmm. te tubaab bi départ na bu yàgg mm-hmm. xamul fan la jaar yegg si ku mm-hmm. jàmbaare ma mel ni maam Cerno ba amul ci àdduna sax bi nga xamee ni yegg si na nag jour bi muy yegg si mooy doon 18 safar mooy bisu màggal gi samedi ci suba le 10 août 1895 doon fukk ak juróom-ñett ca diggu gàmm wa 1313 lésir ci la maam Cerno nuyu Sëriñ Tuubaa fekk jot na ndigalu yàlla mu nuyoo Sëriñ Cerno ñëw nga mu ñëw mu ni ko ñëw naa waaye bëgg koo gaaral li mu jot a waxanteeg tubaab bi yëpp mhm. suñ tubaab ne ko Thierno dara matunoo wax mhm. bi nga taxawee di wax ak ki dox sa digganteeg tubaab bi lappatoo bi doxoon sa digganteeg tubaab bi maanaam interprète mhm. bi ngay wax ak moom xorondoom yi doon dox sa diggante tànk yi maa ngi koy gis Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko jot naa ndigalu yàlla ci wuy ji tubaab bi nanu dem takk fas wi génne bagage daal di jiitu na Cheikh Ibra Faty topp ko ba suñ tubaab jub kër gi un mètre taxaw ni ko Ceerno duggaat ci kër gi aram na ndem jot naa ndigalu yàlla ci dem aram na sama jëmm duggal maam Ceerno moo takk fas wa tudd awnulaahi la fas wi tuddoon awnulaahi awnulaahi dimbalul yàlla lay tekk ci wolof moom la fas wi tudd bi mu ko génnee suñ tubaat dugal tànkam ci digal bi njibbi ci kaw fas wi doxal ko juróom-ñaari jéego téye biir noonu mu taxaw mu ni ko Ceerno mu ngi mu ko indil Mouhamadou Moustapha ak Mouhamadou Fadil mooy li sëñ moom ak Cheikh Mamadou Moustapha sëñ Tuubaa mm-hmm. wàcc ay loxoom ba mu jot seen bopp ya mm-hmm. mu teg loxo ndeyjoor ci bopp sëñ Mamadou Moustapha teg mm-hmm. loxo càmmoñ ci bopp sëñ Fallu ni dénk naa leen yàlla boole seen loxo yi teg ci loxol Baye Thierno daal di doxal jullee fay naange melax maanaam yoor yoor dëkk bi tudd melax ci Jolof fa la jullee fay naa ngi bi mu yéeg tund jéewal nee laa seen commandant le clerc ànd ak spécial mhm. ca tund wële mhm. ñu wéttaliku lool ma weet lool mhm. ku ne di gawar maanaam ku ne war fas seen ngimbi ñi fetal yi jublu asamaan mel ni dugub ju focc daal di wax Abdoulaye Salim naar bi mu doon nettali ni ko Abdoulaye muy ko muy ko keroog góor gu man su ñooñu te xam ne moo leen tax jóg bu wàccee dajeek ñoom jàmm rek lay wax mbaa mu seet nu mu jaar raw ba dund daal di ko Abdoulahi bi may gàñe tubaab bi mooy bi nga xamee ni nekk nañ ci tund wee mën a ci wii ñu war a daj ci xur bi ma jiitu leen fi ñu war a daje maa leen fa njëkk ñu mhm. ma yegsee damaa jullil yàlla ñaari rakk ndax mhm. yàlla pàkk mu amal ñu jàmm koo tax mhm. te maa ngi door a wàcc foofu mu sujjootal yàlla nee bi may sëlmal la ñuy yàgg si ñoom gawar gi ñoom gawar gi wër ma daal may laal ma wuyu ñu ni ma jógal ñu dem wala ma yeew la yóbbu wala ma yóbbu sëb néew nee na ñett yii la ma Leclerc tagal sëñ Touba nee na bi mu ko waxee jant baa ngi fii sowagul ma ni ko gees ni ko ki may jox ndigal nee fii lay fanaan mhm. dégg nga wax bi kon tubaab bi yóbbuwul sëñ tubaab yooyu mhm. dañ ci war di bàyyi xel mhm. mooy ki may jox ndigal nee na fii lay fanaan fii laa war a fanaan nee na bi may jàppal farata ca la daw di ma song ni nañu yóbbu sama néew ndax damaa dëgër bopp sëriñ tubaa nee na ñu seen sama maaru ja daanu foofa ay mber fereen lu mel ni mber fereen nelaw ba bët set maa leen yeelu suñ lay jaxate nee na bi ñu yeewoo danoo romb suñ tubaa mu ayu leen ñu taxaw mu jiitu ñu topp kon léegi mooy diriger. ñoom bi ñu nelawee ba yeewu rek ñoom xamuñ li xew léegi sëñ tubaay dirisé nee na bi ñu see kokki njagay sa jeey sëñ bi daa dugg ci dëkk bi waaw dimanche matin sëñ bi dugg ci dëkk parce que dañoo ñëw ci kaw yoon yi pour ñoom dañuy continuer dem Louga sëñ tubaa dugg dëkk bi ñu topp ko mu yegg si sëñ kokki wàcc nuyoog moom ñu ko waxal frais yi ñu wëgg fasi nasaraan yi danoo mar maanaam dongo yi nañ wëgg fasi nasaraan yi wax xoolal yërmande jooju mm-hmm. yow ñi dañ laa jàpp war laa sànk nee nañ ñoom ñoo la jàpp ba pare bëgg laa sànk ngay mm-hmm. wëggulu seen fas mm-hmm. ah léegi oto bi la jër war laa yóbbu te bu la yóbbu dañ lay faat ngay jënd gasoil ci oto bi mës ngaa gis loolu kon moo doon yóbbu boppam bi mu fa jógee nag la fanaan si Louga mooy le 11 août ci guddi le 12. Mhm. la yenn luga jullee fa tàkku tàkkusaan dugg ci saxaar gi ñëw Ndar cib tënk. Mhm. li ci des mooy li nga ma questionné mooy. Mhm. mag ñi mu àndaloo. parce que bi muy woote yoon wi dafa am ñu mu fa fekk. ñoo xam ni am na ci ñoo xam ni daanaka xam nañ ni kii du nit. parce que jot naa jëflanteeg ñenn mhm. wootewul yoonu murit boobu ndax suñu Mbàkke Mor Anta Sali mu ngi doon dund mhm. bi ñu ne Mbàkke Kajoor waaye am na ñu jot a jëflanteel loo xamante nii mhm. xam nañu kii dund kese moom moo tax bi mu wootee ñam jotoon a jaaral fa mu jaar moom. Mhm. dañoo daal di daw jox ko seen bopp na mhm. parce que yàkkamti woon nañu loolu. te mhm. xam nañ ni bëgg nañu yàlla te mënuñu faa yóbbu seen bopp te bëgg nañu ko leen fa yóbbu te xam nañ ni kii moom wax nu lii. mën na noo yóbbu ci yàlla. kon ba muy sos yoon bi mag ñi nga xamante ne. ñooñu ñoo ko fekke waaw ñoo ko fekke woon ba ñii mu seexal leen. waaw nañu euh, taxaw foofu tuuti dem seeti Zey xool su fekkente ne Zey ah allo. Zey la ñuy dem seeti. xool tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, internet bi ñoom tamit euh, euh, dafa am question bu ñu leen laajoon ndax tamit sëñ Saliou umpale woon ni ne chauffeur yi nga xamante ne nekk jóge fu nekk di dem war nañoo wax ak ñoom. ndax tamit nee naa la zéro accident loolu ñëpp di ñaan. Mhm. waaye ñoom ñi koy sabab ñi nga xam ne ñu ci bëri am na ay xeetu ñoll yu ñuy jëfandikoo ki ay xeetu pion ki mhm. ay xeetu ay ay nampal. daaw daaw xale bu góor ba day dawal car rapide ba pare di di di ma dagg daggaat ndekete yoote man daal dama ne cëpp xool ko gis ko mu ne zuyu ñu lang ci ginnaaw ñëpp ceeg daawun man leen xam ngeen ni yéen ñi waru a wuy ji yéen wallaay ñi yéen a nar a yàq yoon wi jakartaa itam nañ wax ci ñoom bu baax wallaay wallaay wallaay wallaay oui tout à fait. waa ci loo ne. maa ngi nii. ah gaa ñi wax nga leen chauffeur saa ngi lëmbee réew mi de war nañu wax ak ñoom. dëgg la tout mu nekk nii kenn ku ci nekk yaa ngi yedd chauffeur si. waaw euh, Mati Diop nee na xanaa ñu dawal normal. te ku si mhm. bëgg nelaw dem nelaw. Mhm. bu xaalis tax ñuy def naka sadul noonu. nelawuñu ñoom. waaw ñoom da duñu nelaw. maa yi la ñuy jël pour bañ a nelaw di di di di oh, di def yu doy waar. di baagante ci tali bi. waaw doy na waar. Uh-huh. Mm. Elage Mansour Fall mm. dem ak jàmm dellu si ci jàmm euh, mbay seen daal dina yaru ak am ak taalibe ku ko si mhm. def rekk mucc mhm. euh, Cheikhul Khadim Mbacke Stam nee na nañ daw ndànk di def ndànk mhm. te oto yi nag nañ baax ndax tuubaa ngeen jëm te Touba ku fay dem sa lépp daa war a baax euh, maa ngi jéggalu Ndey faatu Sall nee na xanaa ñu xam ni yoonu jàmm sorewul. Mhm. vérifier bu baax oto yi def entretien. Mhm. ànd ak yar te xam ne kenn du lekk lu dul wërsëgam. Mhm. Abdou Bavarois loo nee na chauffeur yi nañ def ndànk yàkkamti baaxul te bañ a yokk paas yi te balaa ñu dem ñu fee jóge ñu xoolaat oto yi Touba jegewul mm-hmm. yàlla na ñëpp dem ci jàmm ñibbisi si jàmm yokk paas moom duñ ko bàyyi euh, mënuñu ko bàyyi ñoom waaw foog ñu yokk paas gi nag euh, wa bañ koo yokk plutôt te moytu tamit yi ñuy naan tata dégg ak ah. yooyu ñuy jël pour bañ a nelaw ah ah doy na waar de ak bu yomb boobu di jar sa sa xaw ma ay xar sax da ngay def euh, attention assentement nag koo xamante ne ay nit nga ah doy na waar de doy na waar nañ ñu yërëm ah joxe joxe ak zéro accident la ñu bëgg ren. Mm-hmm. zéro accident ah ñu waaw loolu la ñu wax zéro accident la ñu mm-hmm. am naa tamit euh, sama premier gagnant. Euh, euh, da nga ko da nga ko may paasu Touba. waaw naa ko paasu Touba. waaw tey moom paasu mami ngay may. ak paasu mën naa dépense. ak ak paasu sëñ Saliou Sam déedéet déedéet. xam naa li nga bëgg dépense. yow ma suul ak bëgg ci. suul ak bëgg ci. paasu Touba bi Ila Touba bu mami. mi ngi tudd El Hadj ci waawoon la dëkk. yéen a jógee ci ba Touba moom moo la sant kooku la ñuy. waaw waaw mm. waaw waaw yànkamti nga dépense ba di wax suul <laughs> mm-hmm. maa ngi toog ñoom bi nga leen laaj tamit am na solo xanaa rek li li ñu doon daw nànk dal mm-hmm. nànk. daal fu mu nekk nii. gaañ suñu fàllu mu baax ma dañoo jàngaloon lu ñuy dawale. Mm-hmm. bu nee tàcc sëñ bi nu mu doonati. ni nikk. Mhm. te ne jàkk mhm. Mhm. kese mais tàcc nga ni teg. waaw bu dee yàgg nga ne yool jeex na jeex na kon loolu ñu ngi koy baaxee chauffeur yi. zëy ba ci kanam ñu dem dellu si. fa tabarakallah macha allah euh, mami. waaw balaa may dellu ci sëñ Saliou. ba tey rek nee naa ci wàllu zaahir bi yow laa koy jox. ndax tamit xam nga jot nañ fi wax jéeg ji nga xamante ne. Euh, seen borom kër lijjanti la lijjanti ba dañu ne ca Touba. waaye gan yi di ñëw ñuy wujjeeki di def ay mbir ba paanu yamb da ngay seetaan da da ngay waaw waaw <laughs> nga noo ko waxante sottente yamb ah man de man xale yi dañuy wax acide sax xew na non non sottente yamba xew mm. mm. euh, xamante ne ñu ngi koy defante démb wax nga ci ba nga xamante ne ku ñëw ca gan ga sax da ut foo faj mm-hmm. ci ñenn ci gan yi ñoo xam ne suñ ñëwee ci kër ga comme xam nañ aawa beeg ñaareel beeg ñetteel beeg fañ lam ca mën a dem lu ñu mën a mm-hmm. ku ca ne day raak temps normal nga xamante ne nag ñu weng magere gan yu wenge parce que ku ci ne na nga mel rek noonu sa ay xarit di mel ah, waaw ñooñu ñëw su ko defee defal la gang defal la délégation ñu nekk fa di euh, ku euh, même escalier da nga ci gis ñoo xam ne dañuy tàppante ay mag mhm. di utante dem ba nga xamante ne nekk ay kàdduy safaan euh, jib fa mhm. ci lii nga ne lu ci nekk temps normal sax dañ ko war a sellal rawatina période bii mhm. loolu nañ ci bàyyi xel paquet yooyu mu am ci ñeneen ñoo xamante ne ñu nga bitim réew ñu takk leen bii nekk seen ay premier màggal wala waaye ba ñuy fasante ba ñuy fas di ñëw yooyu yëpp ñu ngay ñëw ci esprit defar mm-hmm. ka nga xamante ne nekk fekk nga ca kër ga mu miin kër ga miin ruxu kër ga toog ak borom kër ga ba heure bii nga ñëw bésu màggal ñu lay dalal ca Touba am naa yaakaar ne war nga am beneen comportement mm-hmm. boo xam moom ngay indaale buñ lay xelal boo xamante ni du ñëw xaaral ma dem toj fa mm-hmm. ba ñibbiwaat Italie wala ñibbiwaat États-Unis wala <laughs> ñibbiwaat feneen yooyu yëpp ñu koy defante mu am ci ñeneen ñoo xamante ne tamit euh, mami gan lañu waaye duñu ay gan ndax tamit am na ci ñenn ñoo xamante ne mami dara du leen réer de da gis dañuy toog nekk ci jàmm nga jël sa ñaq jël sa yëpp di leen benn ñu jékki-jékki wuy sama ceenu oor mhm. fekk ne laaj ma lan mhm. ceenu përëm sax indiwuñu dëgg la ah sama ceenu oor fii laa ko mhm. tegoon sama lam bi dama ko sumoon ci douche bi indil la fa événement benn boo xamante ne ma parce que ay noonu niru sopp lañu noonu niru sopp yooyu di ja di jaabante sa kër nga xamante ne ñii dëgg dëgg dëgg dëgg yàq leen tax a jóg ñooñu ginnaaw yaa xale te yaa maase ak ñoom jamono dama bëgg rek nga wax ak ñoom ndax man mag laa mm. xam nga yaa dégg maa ngi màggali bu ma demee toj fa yow amoo saako ciment sa papa moomul sa ko sim ngay toj kër jàmbur mm-hmm. ku la koy raaxle xam nga dem Touba maa ngay dem ca salon ba mm-hmm. minute bu ne nga dugg ca néeg ba solu summeeku génnaat ñëw ne da ngay defante da ngay xëppante paanu yemb da ngay xëppante acide mm-hmm. jaagar jaagar yi da xorondom bu ayee tuuru famille lan war a bàyyi ci màggal nañu yemale mbir yi mhm. xam ne bis boobu li ma la waxoon kaala bala muy dem ci loos day jëkk ci ndigg mhm. nan ne fiitaat takkaat suñuy kol fas yéene liggéey mhm. dem ca togg gaag waañ wa yaakaar naa ne ku ca nekk nekk ca la nga war a nekk di nga tal leneen lu du nekk fa di tongoonteeka defanteeka raak waaye taa diggante da nga laalaat feneen fu am solo mooy ñi nga xamante ne dañ leen di takk te bokk ñoog seen i wujju ay kër ñoo ñu dëkk Touba ñu dëkk fii damay léeg-léeg ñu am di ñu faral di tooñee benn kii mooy yéen ñi dëkk Touba moom a ñemeeg wujje leen a wujjeel nangam sàngam ba tey nangu nañ xam naa jigéen rek moo tax Mm-hmm. waaye nanu xam ne bis boobu daal mm-hmm. am na leneen lu fa gën a yell mm-hmm. lu dul nekk fa di defante taa dëggante dafa ay baat yu sew yu ñuy sànnent ay wax yu ñaaw euh, loolu nag bul jàpp ne gan ñiy ñëw rek itam dañ koy indi wala wujj wi ñëw rek itam am na ci njëkke yu wengare yu nekk ci biir kër ga ñoo koy orchestre ñoo koy yor ndax lan ndax yow mi ñëw am nga mbub moo leen ki nga fekk amul mbub moom la leen may ndax nag yaakaar naa ku yuun muy na leneen moom lu mu teg ca kawam la tal ma ngay daw kër ga la fa manqué ca leen la ma ngi koy yokk ka yokkaat bëggul ay nawleem rey ko kon yaakaar naa kooko tal dem di jënd jippi rek gañi laa mm-hmm. kooko la mu am da koy sol waaye yorul lu muy maye mm-hmm. kee ñëw na xam ne day jënd baax mm-hmm. day jënd juddu ci benn bis ndax kooku day ñëw gan la te gan yaakaar naa ne euh, am na nu muy demee mën na indaale leen lu nekk mais loola bu mu leen nax yéen waa kër ga ba tax ngeen yàq ka ngeen war a desal xool leen xam ne kee yéen ak moom yéenay des ëllëg mm. waaye njëkk yeeg goro yi léeg leen ñu indi ci ay far farfarloo mm. ay waxante mm. dem gi salon jaabante ñëw taa diggéen màggal luñ ciy lalalaate lala laate moo ciy ba jóge sanoo ñëw wàcc buntu kër gi ñu indi la sëru laban ne dañ lay lala fa say njëkk ak say goro ak jéeg ju wengara ju saytaane jala gane si <laughs> ñu mel ne man rek mami dimbale yow da mm. mm. mm. ngay gis joo xam ne comme ni nga ko waxee démb jël sa daggitu mbubb mu yem sa morso ba muy oh. eh, wadd oh. nga ne maa ngay dem ca jumaa ja siyaare yow koy siyaare <laughs> yow koy mënoon waaye waa safinatu pilaweer ya pilaweer lañ leen di solo déggoo li ma la conteneeru balu pilaweer yaa ngay wàcc moom ko fa yóbbu sam jas neer di tiitar eh, boo xefee dinañ la summi ba nga fet doy na waar am na paquet boo xam ne maa ngi dellu si sëñ Saliou Samb mm-hmm. waaye maa ngi la koy jox pour nga euh, xalaat ci bu baax bi may dellu seek yow euh, mami temps mm-hmm. normal sax jigéen du nay jigéen du mot mm-hmm. xam nga tàndaw maa da ngay gis que déedéet bul dajjeegum paquet dama la koy confier damay dellu suñu <laughs> parce que il faut ne yaa ngi bëgg donc li nga xam ne warul la tàndaw maa mm-hmm. dafa am ay xam ne suñu toggee du doy suñu aayee kenn du lekk da ngay gis kenn koo xam ne suñu xamee kan noo aayee tey diw di xaaral ma dem uti lu ma lekk mm-hmm. kooku ku noonu nag ba xëy suba nag ay gan ñëw la uy si yaa ngi dégg nga ne da ngay dalal ay gan nga xamante ne nekk loo togg du doy yaa ngi toog sa jëkkër jënd na ndawal lu doy jënd lépp waaye loo togg du doy mhm. da ngay dem ba nga xam ne di gaafal kër nga gaafal xeet ba xeet mhm. xeet xeet xeet ba nga bokk mhm. gaafal sa borom kër téyel foofu non demal demal demal waaw maa ngi dellu sëñ Sall <laughs> sëñ Sall maa ngi lay xaar ña nga xamante ne ne que ñooñu la sëriñ bi yar daanaka mag ñooñu ba mu am ñum ci seexal ah, jërëjëf Euh, maa ngi lay wax sànq ni la bi muy sos yoon wi mhm. fekk na am ñoo xam ni mhm. daanaka ñii ay maasam lañ mhm. kenn rek ci ñu njëkk a jébbalu ci moom kenn rek moo ko ci ëppale woon ay at te ñaari at la ko ëppale woon mooy sëriñ Masamba Diop Samb yu ne ci daara ji ñoom ñaar ñoo bokk nekk waaye booba yoonu murit nag amul ay ndaw lañ waaye dafa ni dootul laal lal bi ndax kii mu bokkal néeg bi du nit moom moom sëñ ma Diop. kon mhm. kooku am na lu mu xamoon ci sëñ Tuubaa mhm. avant mhm. ñu ngi nekk nettali xisa bu yaatu sax boo xam ni bu siiw la sëñ Massamba Diop buñ masaan a dem ci da ci tool yi ñu sas dongo yi maanaam dooñ leen ku nekk ñu la yaay bay diggante sàngam ko diggante sàngam ki mu bokkal néeg moom xam na ko donte moom ak sëriñ bi da ko naan Ahmadou toogal ne yor sub jukki yow waroo bay bàyyil ma bay sama sas bay saw sas sëñ Massamba Diop Sam borom daru Sam wax nañ ni egg naag moom sax ci bis mhm. dongo yi loolu muy def am luñ ci xalaat ba tax ñu njëkk ko ci daara ji balaa bay sa sëriñ bi añ mhm. bàyyi ko bi wax ci doxee ba yegg ci moom mu laaj ko lu xew mhm. mu wax ko ko mu ni ko Masamba Jóob fii ñu la añee wàcc la añ yomb na fi waaye bu ñu demee fa añ jafee loxo bu tuut bii ku mu seddul nga fande bu nu yeggee ëllëg di nga xam ne li la jaraloon jar na ko def naa moom yu bari parce que bi mu waree wàcc liggéey sëñ Tuubaa moo ko wax foo ko bëgg a defete alxuraan moo waxoon ni kenn ci yéen du xam fu muy da fu muy faatoo mm-hmm. waaye moom sëñ Tuubaa dindil na ko loolu mm-hmm. Masamba Diop mm-hmm. mu ni ko Mbàkke mu ni ko foo ko bëgg a defee foo bëgg eh mu ni ko fii lañ ma moome waaye Kajoor lañ ma miine mu ni ko jógal dem Daaru Saam mu jóg jëm Daaru Saam mu ni maam Cerno Ibra Faati jógal topp ko soo yeggee dana wàcc liggéey na nga ko taxaw jébbal ko sama borom dikk ma wax la lan la daalante woon ak man diggam ak sama borom <laughs> kon assurance bi mu yor fii ci kaw suuf si bu ko raw la yor fu nu jëm ndax yàlla nu wax ni kenn du xam fooy faatoo waa léegi ki ñuy laaj foo bëgg a faatoo kay moom romb na xam fu muy faatoo léegi moom mooy tànn fi ko neex mu faatoo fa te ruu garanti ko problème la fi mu toll gars yi bari nan waaye kuy garanti ruu une journée amu ci parce que gëmuñ sax ndax ñoom noo ngi dugg gëmuñ ni dina génn comme gëmuñ ni dina génn garantir u problème la si ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. Serigne Touba. Mm-hmm. gis nga bi waa Ndar dajaloo. ñëw ni ko. danoo waxtaan ak gouverneur général ba mu ne ñun bu ñu ko joxee këyit dossier boo xam ne dañ cee ñaan intervention yow nga jox ko dossier boo xamante nii da ngaa weddi liñ la tuumaal. dalay ba libéré. daf ni ka ka nekkoon seen porte parole. ab enseignant la woon ci école élémentaire bi. di Serigne Ahmadou Ndiaye Mapé. te. yi mu waxee ba noppi Serigne tubaa dañ ko Ahmadou njaay mu wuyu ko mu ne ko Ahmadou ay ñaar ñu yàquwante boo leen di defaree dangay ngay njëkk ci ko jekk waroo leen woon a njëkk ci tubaab bi tubaab bi jàpp moom maa ko jàpp mhm. waaye booba doole ji tubaab bi am ci zahir mhm. ak moom ni mu wéete fi mu ne mhm. tax na ñi mu ko wax pour ñu gëm ko doon problème dégg ko day jafe te moom waaw da koy dégg gi mooy problème te Seex Ahmadou Bamba mooy koo xam ni su la masaana wax dara sa xel jiixi jaaxa dalay tegal lu wow korong nag léegi dégg gaay jafe saa boo lay waxee dégg gi jafe dina la tegal lu gën a wow loolu def na ko ba tey bi mu leen waxee tubaab bi jàpp moom maa ko jàpp mhm. waa ndar xaw a inquiété wu ci seen xel mhm. mu daal di génn xasida ak asiru jox sëñ Ahmadou Ndiaye Mabé ni ko yow doo wopp doo dee ba ma ànd ak moom ba dem di ñëw mhm. asiru mal abra waaw xasida gi la génne jox ko mu téye mu ni ko doo wopp doo dee téyel ma ko ba ma ñëw jël si ko sa kër huit ans la garanti dund kooku ah, te benn ne garanti ko problème la mhm. mm-hmm. Sëñ Tuubaa garanti Sëñ jaay Ndiaye Mabéye huit ans mhm. yow ñi nga xamante si ni yaa yaa yoroon kaddu doo wopp doo faatu téyal ma lii ba ma ànd ak moom def li may def ñëw bu ma dellu see danaa ñëw si ñu ñëwee Ndar 11 novembre 1902 la ñëw tolloog sixième jour ca weeru Sambaan wa mhm. Sambaan mooy baraxlu mu daal di nekk ndar fa ko maam Thierno fekk. Mhm. bis bi fa maam Thierno ñëw mooy quinzième jour ci baraxlu moo tax ñuy màggal Daaru Musti mhm. quinzième jour parce que mhm. Alaaji Fallu Mbàkke bi mu nekkee xalifa la wax sëñ Modaw Balla dee leen ko màggal ci bis boobu. fekk ñu daan màggal indi leen ko ci bis boobu. moo tax ñu indi ko ci nisfu Sambane quinzième jour te bis boobu di bis bu màgg ci lislaam nag ndax ci lañ commencé bi jub julli di jublu Kaaba mhm. jour boobu di nisu Saabaan yonent bi daal julli jublu Jérusalem mhm. baytul maqdis mhm. tisbaar balaa tàkkusaan Jibril ñëw ni ko sa borom nee na bu leen bokkateeg yahud yi fu ngeen jublu jublu leen Kaamatal Musarraf waaw moo tax jàkk ji tudd masjidul xibla tey ni jàkkay ñaari xibla tudd noona parce que danoo jublu Jérusalem julli tisbaar tàkkusaan ñu jublu Kaaba gi balaa tàkkusaan décret jublu Kaaba gi ñëw bis boobu la ñuy màggal Daaru Muxti bis boobu la Ceerno gis Sëñ Tuubaa muy loo xamante ni. bi mu bi mu bàyyi ko foofa. Mm. dafa jaar Sànnoosi ñëw fekk ñu woor dafa ñëw ba Kébémer muy cinquième jour ci koor bi mu jaar dugg Sànnoosi. Mm-hmm. génn génne fa kori ba mu am trois jour mm-hmm. dox dem Daaru Salaam vingtième jour ci korite gi. Mm-hmm. bi mu mu gënee seexante quinze jour dafa ñëw ci maam Thierno. mais départ dakaar bi mu départ rek wàcc ndar tubaab yi signé. kër sëñ Ahmadou maa bay la jubali. door a génn nag ñëw Kébémer. dellu jëli assur jëli assur mhm. wax nañ ne bi mu ko jubee Cheikh Ndiaye maa bay daal reetaan ba ca kaw mhm. ne ko Ahmadou Mbacke loo ma waxoon def nga ko mhm. wopp ma faatu ma huit ñu garanti la yow feebar sax bopp buy metti la dal Serigne Touba rek ko mas di defal yu mel noonu ñu nekkoon ci mag ñi maa ngi woon ci Serigne Massamba Diop parce que ci ñi njëkk a jébul wuur bi njëkk a jébul dama la doon wax waaw dama la ni la kenn moo ko ci ëppoon ay at moo ma dugaloon Serigne Massamba Diop Euh, sëñ Adama Guèye moo njëkk jébbal. donc mhm. mhm. njëkk jébbal. waaw. Mhm. sëñ Tuubaa wax na bind na wax ni. ki njëkk maa gëm. ci fere yi. mooy Adama Guèye. ndeysaan sëñ Adama moo njëkk a jébbal bi sëñ Tuubaa woote. sëñ Tuubaa moo ngi woote bisu àjjuma. ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci koor ñu laylatul xadir ba ci suba gi. mu génn wax ni saafaxani rasulullah. ñool makk ñëw na ci man direct. du gént li jaxran waaw mhm. moom yonent bi ci moom dalaan ñëw suñ tubaa direct jaxran bi ko maam Seexanta fekkee maa yomba mhm. loolu buñ ciy wax ñaata yoon la ñëw kenn mhm. xamu ko ci am waaye bi ko maam Seexanta fekkee ci mbaaram mi woon ci lambar na mooy fi mu mujj a nekk six mois la fa nekk ci Gabon foofu la mujj a nekk bi ko fa maam Seexanta fekkee dañu ko seex mu ni ko mbakkee fekk maam Seexanta nee na bi ma ko gisee kawar ga daa bari ba def ay jimrikat parce que boobu def na sept ans nee tuutaay bi yokk ñuulaay bi yokk nee ma koy xool ba mu yàgg ma jooy daal di yegg suuf jooy mun ma seex ma ne ko mbàkk ma daanaka jarul jooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ma xibaar sëg ñëw ci lal bii ngay seen la toogoon ani seex léegi la dem te ma koo woo nga siyaar ko maam Seex Anta nee na ma sigg ni ko mbàkke dee ko gis ma lay gis ma mhm. doy nga ma sëkk mhm. del mhm. ma lay gis ñu dellu si waat ci mag léegi maam am Anta ci mag moom la léegi bi nga xamante si ni woote na Sëñ Adama Gueye jébbalu ca ñaar fukk ak juróom-ñaar ca koor ga Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ jébbalu mais avant moo woote yoonu murit waxoon na Ibrahima Sarr duma nit bokkuma ak ñii parce que soxna si mu njëkk am di soxna jature moom la bëggoon ku ko jëlee Mbàkke Kajoor wamatal ko fas wi mu dem naawel ca soxna maam astawaalo bi mu duggee ci daara ji mhm. kuñ ko wax nga ni bu ma génnee damay jël bi ndax booba ab sëriñ àllarba la am mhm. te du bisu àllarba mhm. sëñ Tuubaa bëgg a te booba sëriñ daara rek lañ ko jàppee waaye bi mu waxee loolu ba loolu yàlla dogal mu fomm fekk Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ñekk fa woon bi mu dugg see dégg ñu koy waxante hmm. mu ne dafa bëgg a yónnee mu ni waaw hmm. mu daal di dugg ci mu yëglu sëñ Tuubaa dugg ci kees gi te booba yoonu murit amul ay jeune hmm. lan rek yu nekk kenn kii gën a bari xam-xam jàngale ci ñu mën a xalaat waaye am na ci ñu ma xam ci moom ay point yoo xam ne xam ne kii du nitu kese sëñ ma Sarr Njaañ ci ñooñu la bokk moo jóg ñëw ni ko damaa déggoon ni da bëgg a ne mu ne ko waaw soxna ja Touré laa bëgg ko wommatal ba naawel mun ko ba ma ko santee ma def ko mu takkloo ko fas bi soxna jëtoro njibbi ci kaw fas bi sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye ñu wammatal ko mhm. wax nañ ni yàlla bu lay may mhm. du la sonal mhm. wax nañ ni lawxul maxfuus ga gaayee ga ga alquran pir jane wax nañ dañ ko koo wàcceel fi mu jaar di dox la koy séen sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye loolaa tax ba mu yeggee naawel xoola fi naawel nekk 31 kilomètres après Kaolack nga jóge Mbàkke Kajoor waaye bi mu soxna ja wàccee waggar gu mu waggar Serigne Touba tax na waral fas yi moom mhm. ndax koo xamante ni soxna sëriñ bi moo ci waroon mhm. warul fas wi mhm. da ko wommatee naawel gannaaw kaw la ba mbàkki ka jëli soxna si da koo wommat maanaam wàcce na soxna si ba waaye war maal sëñ Tuubaa ñi mu wut a war fas wi wommataat tamit maanaam fas wi noonu la noonu la ñëwee kenn waru ko te moom mi koy wommat xam nga mënoon na ci war waaye waggar Cheikh Ahmadou Bamba xam ne du nit te kii waroon waaw ci wanagam la ne ndeysaan ndeysaan ñu dem publicité Fatouba Kalla macha allah dégg ngeen ko di waxtaan ak yéen ci la Touba waxtaan wi nee naa leen euh, dafa am fu muy yóbbu nit. Fatouba mhm. Kalla macha allah waaye ñuy santaat yàlla julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam xam ne ila Touba rek nee naa leen jamono ju nekk ak la cay xew. Mhm. naam sax moom Touba jamono ju ne la waaye Fatouba Kalla macha allah daal am naa yaakaar ni euh, borom xam-xam yi ñu fi indi ñu ngi ñuy gindi bu baax a baax. Mhm. li ñuy def ma mi ànd ak Coca Cola. waaye tamit ànd Fatouba la macha allah ak. Karoskin euh, mi nga xam ne moom la ñu sibop indi ñu dem publicité euh, su ma sañoon sax ñaan euh, Adja Diallo mi nekk à la régie waaye tamit ñaan vieux Diouf fatubakàlla macha allah borom xam-xam yooyu euh, ñu koleel ñu ci fësal mbaax suñ ñu koleelee fësal mbaax rek su ko defee ñu dellu si kàttanu yàlla kon ñu dem dellu si jërë ngeen jëf vieux sëñ Babacar Mbacke mu kabaro dafa nekk benn jeune marabu boo xam ne fii ci Kaolack ndàggaan ci volet social señ Babacar mu ngi jël ay famille yoo xam ne di leen octroyer fii chaque fin du mois ay saaku ceeb ak duuli tànn na fi 45 familles ci commune de Kaolack ci wàllu fourniture euh, scolaire yi xale yi te ren lim fi joxe joxe na euh, valeur yi 1500 cahiers ay ay étudiants ak élèves fii ci Kaolack. mu ngi woo nit ñi ci jaamu yàlla mu ngi woo nit ñi ci teraanga. mu ngi woon nit ñi ci jub ak jubal organisé na ay xale yoo xam ne yii tey fa ñu nekkoon neexut seeni kilifa waaye tey kenn ku ci nekk tey sa kilifa bëgg na la ngir jëmmam ji tax. bi ma xamante ak moom léegi mu ngi war a toll ci man fukki fan des ko donc te ay bàndi aadama ñoo ma boole ak moom ndax ndimbal loo xam ne li mi ngi koy def fii ci askanu Kaolack lii may wax nag sama diggante yàlla laa ciy wax. ndax tey jii bi mu xëyee ci samay soxla la xëyee ba midi muy door ñëw ci këram te bi ma ñëwee la ma jëkk a wax mooy fii kër Serigne Touba la xàmmeewuñu murit xàmmeewuñu xàmmewuñu xàmmeewuñu laayeen ñëpp lañu bokk yamale ci kër gi képp koo xam ne kii am nga sa soxla ñëw fi danañ ci def suñu kemtalaay kàttan. yàlla dafa dogal Serigne Babacar euh, maak moom du ñu ñaar kenn lañ. am na loo xam ne xëy na duma ma ca mat seere waaye lu mu gàtt gàtt am na lu ma xam ci moom ndax ba ñuy ndaw ba léegi yàlla dafa dogal ñuy ànd mooy ni koo xam ne dañuy wax naturel loolu laa xam ci moom daanaka fanweeri at a ngi nii li may gis ci moom bis bu set loolu laay gis ci moom tey moom laay gis ci moom suba amul coppiku. te it man daf may yéem ci yenn mbir yoo xam ne mooy doomu aadama ku mën a jël sa bopp bàyyi ko nit ñi fu la leen neex jëme leen loolu moom ndimbalu suñu borom lay doon. sëñ Babacar nag ni mu doonee mbàkke mbàkke di sët ci sax mu Basiir di doomi sëñ Moussa mu mag sëñ Moussa moom sëñ Basiiru doon rakk ci sëñ musaa Nawel. sëñ Moussa Nawel di sunu jëwriñ di jëwriñam loolu lépp ñu ko boole ba noppi sëñ Babacar doon Baye Fall sëñ Mountakha Baye Fall yoon bi yëpp lu dem na ba doon Baye Fall ay magam dem na sax ba àgg ci doon Baye Fall ay rakkam doxe ni muy dox doxe na woo xam ni doxe nu taalibi la doxe nu Baye la doxe ni Modou la ndax koor ak tabaski gu ne dana defal sëñ Muntaxa loo xam ne borom mbooloo yu mag yi ak seex si sax mënuñu ko mbaa bu ñu ko mënee defee bu ñu ko noona ci volet fi nga xam ne moom lañ jëm muy bës bu mag bi Touba ku ñëw fii di nga fi fekk ay bus yoo xam ne gratuite kon bu ñuy wër ku kuy def mbaax kuy jàppale nit ci volet justice ak lépp xale bu dëngoon Kaolack boo fi accès jubbanti na la ba orienté la tey ba takkal la jabar ba nga uuf ay njaboot mu daggal la kër ñun fi may kër benn ci man fii ci ginnaaw Ocass tey maa ngi fi am terrain ay kilifa yu bëri tey moo leen génne ci loyaas. gis naa ci moom jikko yoo xam ne bu ñuy wax jikko yi nit ku baax euh, mi ngi ci moom te loolu moom suma diggante sama borom laa koy séeréer euh, ndax koo xam ne sa yitte yëpp weesu yitte doomu aadama yi am doomu aadama yi nga jox. boo xëyee ci ñoom ngay xëy booy gont ci ñoom ngay gont euh, loolu moom def lu baax mënu ko weesu lax gi mu nekk nii euh, li mu fi liggéey xëy na ñu bari duñ ko xam ndax nit ki boo ko xamul rek euh, ee nga koy wooyee ndax am na lu muy liggéey loo xam ne ñu bari dañ koy dégg ci turam ak na nañ koy waxee ak lay am da bokk waaye moom lenn lu ko ñor lu dul Sëriñ Tuubaa amut te lu muy def du Sëriñ Tuubaa tax mu koy def sëñ Babacar nag doyuñu une journée doyuñu deux jours doyuñu une semaine mus naa toog ñu yëm lool ci moom ni ko siñ Babacar yow di wax dëgg digg dëgg sonn nga ndaxte rek ñëy am nañu ay doomu aadama yoo xam dañuy ñëw ci yow di daw di ñëw ci yow te doomu aadama yooyu melu ni ñuy war a mel mu ne leen ñoo ñooñu ñoo man lu may doyee ku baax lu may doyee nit ku baax du ma koy doyee man defar moom ma fi too moom moo ma fi taaj dama bëgg ku ñëw mel na ne ni wala ma fekk la nga mel na ne ni ma ñëw la defar la bàyyi la nga dem kon nag sëñ Babacar moom bu dee affaire sociale kenn ëpp ëppaloo ko ci. boo demoon ci procureur ba ci suuf ñoom ñëpp xam nañu sëñ Babacar askan wi la fi nekkal laajul kenn pour def ci poosam laajul kenn pour def ci këram dafa laaj pour dimbali doomu adama yi te ni muy laaj ay taalibe sëñ Tuubaa lañ ñoo xam ne ñoo ko fekk fi mu nekk xam ne kii lu ko ni jox mu delloo ko jaay mu jox leen ko. tabas gi passé plus de 3 millions et quelques la jël def ko ci doomu aadama yi lii may wax man mii lay woo ñu bëri fekkewuñ ko ma xam ne ko tey waa Kaolack bindal ma liste xaaju guddi kenn ku ne mu jox ma ne mooy yóbbul ma kër diw yóbbul ma kër diw ma dem fëgg ay borom kër yoo xam ne koo xam ne bi ma ko joxee ay ronkoñam dafa wat mbaar mii ngeen di gis nii plus de cent millions et quelque la moom moo jël ci xalaat boppam ak ngóor ak boppam ak bëgg sëñ Tuubaa ne da ko fiy def waaw tey boo demoon tey marché occas bi ñu nekk nii boo ne sëñ Babacar Mbacke ñu wax li muy def nanguwul xale bu taxawaalu moom lépp lu muy defee ak détermination la koy defee bàyyam bu baax ba sëñ Moussa moom sëriñ Bassirou moom sëriñ Touba noonu la nekk woon ci pénc mi di xetti lu doomu aadama yi lu xew mu jóg ku nu téye mu jóg ku am naqar moo fay jiitu ku am bànneex boo ñëwee boo ko ko waxee lu mën def ko ci loolu la sëñ Babacar di def jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag euh, dellu seeg yéen seen émission wareef télévision Futur Média ànd Fatou Bakalla macha allah ak suñuy sponsor Fatou Bakalla macha allah euh, ki nga xam ne moom di Coca Cola. Mhm. mi nga xamante ne ne que ànd na ak jamono. nee naa leen Coca Cola classique bi nga xam ne moom la ñu teg nii di ci bëgg di ci bëgg ak di ci bëggee. Mhm. waaye tamit Coca Cola indi na Coca Cola zéro bi nga xam ne amul sucre amul calorie te même goût. excellent goût rafraîchissant ko coca cola classique moom tamit euh, nañ ci bàyyi xel ànd tamit ak caroskin gamme bu sa am solo boobu nga xam ne si sirop moo ñu ko indil à base de carotte nga xam ne day noddanti ak dindi bépp gàkk-gàkk ah di ralentir vieillissement peau beeg yooyu yëpp sirop daal loolu la ñu indil mu di caroskin waaye jamono ji ñuy toog di waxtaan mami gis nga mhm. ni ñu toog ak sëñ Saliou Samb conférencier fu mu ne mhm. nii ñëpp a ngi ne tekk mhm. kenn doyalul fu mu ne tootoom ngeen ma waroon yokkal 5 heures de temps ndax Fatubaakalla macha allah balaa ñuy dellusi ci moom. ndax mhm. ñu ngi woon ci ñi nga xamante ne ñoo jamonoontewal ak. wallaay lu am solo ak ñi nga xamante ne nekk mhm. ñoo njëkk jébbalu Zey allo allo Zey. taa waaw. waaw waaw internet yi nag ginnaaw ba ñu waxee. chauffeur si nañ dimbale rek ci yooyu ñuy jëfandikoo. ñoom ak di euh, course course gu dul dakk ba accident yi di bëri. lu ñu wax lu ñu wax dëgg la tàdde ngeen message yi daal tout cas à l'endroit des ngi continuer sur la page Facebook. Mm. di digal nag chauffeur a dugg internet yëpp nañu dugg xool li nga xamante ne moom lañ leen di digal. Mm-hmm. Euh, sinon tamit tàdde ngeen ci téléphone bi euh, murid yaa ngi woote taalibe yaa ngi woote mm. nee jamono ji ñoom ñu ngi waajal bu baax a baax. Mm. màggal gi ku ci mm-hmm. mel ni Khady Sock moom ba Saint-Louis la woote. Mm-hmm. di waajal màggal nag ni fi mu ne nii nag tata dëggeen lu ñu joxe ci paas doyut xam naa ne bu subaa xam nga nu may def hmm. suba 30 000 laay maye paas ah loolu laa bëgg de soit ma maye 30 000 waaw soit ma maye ay 6 paas yooyu ku ne 10 000 ban moo ci dàq ah defal 6 paas ku ne 10 000 6 paas ku ne 10 000 waaw comme affaire ah. bi daal euh, kii bi kenn du ko nen bi waaw kenn du ko sur le plat laaj ma lu ñu koy def mhm. dañ koy mayonnaise mayonnaise ñëpp cap ñëpp ñëpp ñëpp am waaw ñëpp am waaw d'accord tata dëggeen kon suba dañ jàpp ne daal 6 paas laay maye ku ne di nga am euh, incha allah ñaari junni mhm. euh, madame Ami Collé madame kii nag Mbacke. Mhm. Euh, tudd Ami Collé moom da doon woote rek pour pour ziar Serigne Saliou Samb. ndax moom nee na euh, sëñ Saliou dafa nekk euh, taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke. te moom dafa nekk wu Serigne Galas bu taawu sëñ Abdou Karim Mbacke. ah loolu foofu doon woote rek. pour pour mhm. ziar ko. loolu foofu na waaw loolu la waxtataa dégg mhm. sinon tam Cheikh Ndiaye dëkk Parcelles Assainies. moom it woote woon na bëggoon ci paas yi waaye malheureusement fekk na jamono jooju joxe woon nañu. paas yi suba la jox lu doy. waaw madame Sarr na ma jox lu doy. suba waaw suba moom 6 pass laay joxe. waaw 6 pass. waaw waaye suñu deuxième pass na ki ko gagné mi ngi tudd Bàcc Thiam. Hmm. Bàcc Thiam ko kooku pass bi sëñ Saliou ko ko may. waaw sëñ Saliou nga ko may mm-hmm. moom Diourbel la dëkk mm-hmm. sorewul sax Touba Diourbel la dëkk mu fas yéene rek màggali Tata Degen lii laa taataanoon ci téléphone bi bëgg nañu mm-hmm. bëgg nañu kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñëwaat suñu plateau d'accord xanaa kon ba ma tàgguwaale waaw tàggool tàggool tàggool tàggool ba suba leen wax rek euh, ba suba incha allah ci beneen numéro wala waaw <laughs> bëgg nañu sëy <laughs> fatumakàlla macha allah mami ñu gis sëñ Saliou mi ngi nekkoon fu am solo fu am te waxtu wi macha allah bëgguñu dara dara dara dara kii ñu ci sëñ Saliou ma delloo la jërëjëf maa ngi ziar euh, sama soxna Serigne boobu. Mm. Mm-hmm. soxna ami Kole moom Serigne Galas Mbacke Sindidi. Cheikh Karim Sëñ Fall. macha allah. Mm-hmm. waaw ñoom sunuy Serigne lañ wax. na mm-hmm. waaw ñoom bu fekkee ni yëg nu li ñuy def rek. te nu leen koy defal mu ñaan Serigne Touba mu yokk leen ci barke Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne moo leen boole ci Serigne bi barke Serigne Abdou Karim Mbacké Fadilou sunu yaakaar yi tey la soxna ni ko la nu ngi lay ziar waaye nu ngi ziar Serigne Galas Sindi yi soxna Maylaat ak mboolem seeni rak soxna Mbay nag Serigne Galas Mauritanie mboolem seeni rak rek képp ku Serigne Abdou Karim Mbacké Fadilou jaboote ñu ngi lay ziar bu baax ñu nekkoon ci euh, Serigne Ibrahima saar Njaañ mm-hmm. ci yóbbu boobu mu yóbbu loolu sëriñ bi soxna jature mhm. naaweel ca soxna maam asawaalo maami sëriñ bi mhm. te dëpp warul fas wa mhm. tànku wammat fas wi nga xam ni loolu rek doy na ñu xam ni ñu nekkoon ak sëriñ bi xam nañ ni sëriñ bi bokkul ak nit ñi bi nga xamee ni ñëw na dafa fekk sëñ Tuubaa bindal ko ñetti way ñetti way yooyu moo ko wan ni kii du n'importe qui parce que am na paral boo xam ni donte wooteegul yoonu murit ci zaayir du mag waaye am na loo xam ni nit ñemewu koo wax te fekk nekkul ci yow sa digg ak yàlla moo tax mu wax ko jazaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka yow xaritu yàlla bi parce que ibrahima yàlla wax na taqazallahu ibrahima xalila moo tax mu ni ko ya xillu yow xaritu yàlla bi yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla fay la mawlaaka xayral jaza ngeen ji fay wa mun a ak sa mébét daaray ka àdduna ak alaaxira daaray ka awlaaka faalam na nga xam ni bi annaka indi yow amee nga ci man yow Ibrahima Sarr zuuri dan abadan mhm. amee nga fi ngërëm lu sax dàkk te booba yoonu murit xewagul waaye sama ngërëm li nag fa zaaka ribhuka mhm. sama ngërëm li sa bénéfice la mhm. sa tonowu la mel ni dañu ko kañ mu ne ko fii dunya wa uxraaka tey gërëm naa la di nga ko bénéfice àdduna waaye bu ñu demee ëllëg di nga xam ne sama ngërëm du ngërëmu n'importe door koo dénk nag lim ko dénk ñëpp ko bokk suñ tubaab ba saabu bu dénk koy kenn mhm. ku sax bopp ci nga bokk mhm. mu ne ko fa duma ala siddiqi nag na mhm. nga sax ci dëgg wal ixlaas te sellal mujtahidan deel aji farlu ku noonu sa àdduna jëkk sa mu ne ko fii sirri ci lu nëbbu wal jaxri ak lu feeñ kay kon dee di nga jot mazaaya tan mu mazaayaaka kay tan mu mazaaya kon tan mu mazaayaaka di nga jot sa jublu soo nekkee ci dëgg sellal farlu di ko farlu di dajul sëñ loolu sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ko moom waaye képp ku sax nopp ci sëñ Ibrahima Sarr Njaañ sëñ Masamba Diop sama ci topp mooy troisième maa ngi la doon wax diggam ak sëriñ bi léegi sëñ daam Abdourahman Lo moo ci topp mooy quatrième ku jébul sëñ tubaab bi mu wootee sëñ daam mooy jàngal waa kër sëriñ bi rek sëriñ bi sax am na ñu ci jàngal ndax moo jàngal maam see Anta borom gaawaan borom dërëm ak ngërëm mi ngay dégg sëñ gaawaan mhm. Mhm. sëñ ndaam moo yeggale alxuraanam ndax maam Cheikh Anta waaw waaw bi ñu ñëwee Pataar mhm. Lat Joor nekk kër Amadou Yàlla sëñ Makke Mamaran Sali way jur sëriñ bi nekk Pataar Cheikh Cheikh Cheikh Sidil di maam Cheikh joxe nañ ko mu nekk bari ñi fii di fi jàng alxuraan sëñ Tuubaa ko fi jël si bi mu ñëwee tolloog sëñ ndaam man alxuraan mu rafet lool waaye mu jàng si xam ci seen way jur sëñ Mbakke Mamaran Sali sëñ ndaam Abdourahmane Lo mu jàng si xam-xam sëriñ bi xool alxuraanam mu rafet mu jël doomam maam Cheikh Anta jox ko mu mm-hmm. jàngam mm-hmm. maam Cheikh rek sëñ Tuubaa mm-hmm. sëñ daam moo ko jàngal yàlla nag daa dogal sëñ daam gudd fan moo jàngal maam moo jàngal taawu maam Cheikh Anta sëñ Mouhamadul Mamoun moo jàngal sëñ Modou Roqee taawu sëñ Modou Mamoun jàngal na maam jàngal jàngal baay jàngal sët sëñ daam dafa guddoon fan te kat dinaa la wax lu graaw lu sëñ Tuubaa def ci moom dafa ma sa tawat di ko gaaral sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ni ko Abdourahman mhm. mu ngi ko mu ni ko yow ndooñ suul nga woon bis bi nga ganee jamono nga waroon a faatu hmm? maa ñaan sama boroom mu bàyyi la nga gunge ma ci liggéey bi ki nga fi nekk ba gunge ñëpp hmm? xam ni moom hmm. moo gën a gudd fan presque ci mag ñi àndoon mhm. Mhm. ndax sëriñ bi six mois la ko magi sëñ Touba 6 mois la mage sëñ daam mhm. magewu ko lu mat un an mhm. mais moo fi mujj mag ñëpp 43 la dem bi maam noo demee talaata mhm. sëñ ab Absolo dem jeudi moom samedi la dem en 1943 nekk na fi ba waaw te 53 la gën jamono ñii ni nekk na fi ba 1943 macha allah kon xanaa ay 90 ans yooyu 91 ans lay lay war a toll ku gudd fan la moom sëñ Tuubaa ko wax ni ndooñ suul nga mhm. Mhm. ndooñ suul mooy mhm. da ngay gën a jamono ñu dem ci armée yi doo ëndaale bakkan mu ni ko maa ñaan sama borom ngir nga des fi bu ma sama liggéey te magee ko cinq mois xam nga ni kooku du nit nag koo magee juróomi weer ñu naan juróom ñaari weer nga ni ñaan yàlla ngir ma gunge kon yëf yi am na leneen lu ci nekk ci sëñ leneen la daal daf fi ñëw rek war nu dimbali si dimbali nu mais du ku war a jaar sax ci nit mais bu nekkul nit nag nit du ko ñeme ba mu mën ñoo jariñ kon kon faw waaw kon faw mu ñëw ci mm-hmm. doomu aadama mm-hmm. Mm-hmm. pour nit ñu ñeme ko ndax Antoine Marc Lasry mooy tubaab nasaraan bañ doon wax ni garmi tubaab la te gouverneur waxoon ko mu superviser sëñ tubaa ci njaarim tam daan xar néeg yi di fekk sëriñ fu mu dégg santé ni sëñ tubaa da koy xar du jaar ci bunt bis bi mu indee xaj bi ci njaarim sëñ tubaa capp naa di jàngal mag ñi ci tombam yooyu mu ngi indi xaj bi xaj bi daw di wër sëriñ bi di saw mag ñi bëgg a dal ci kaw tubaab bi mu femu leen sëriñ bi ñu toog bi sëriñ tubaab defee as ndiir dafa ëyu xaj bi rek xaj bi nar a bënn suuf si dugg ci di rab rab bi di rab rab bi moom mi dressé xaj bi lu ne wax na ko xaj bi xaj bi sigiwul lu ne wax na ko xaj bi xaj bi sigiwul bëgg bëgg a nuur ci suuf si rek sëriñ tubaab jékki-jékki mag ñi bëggoon a dal ci kaw nasaraan bi mu def nii leen ahmadou day maanaam man nit a ko ñemee ndax lim niroog moom waaye lu yàlla bind xam nga mooy kan mhm. loolu dafa am jàngat bu ci nekk nit ko ñemee ndax li mu niru ak moom waaye leneen lu dul nit. waaye lu dul nit xam na may léeg-léeg nga gis ku toog di tagg yonent bi ci nit. nangam nangam mais comprendre lu yonent bi boo ko indee ci nit rek wàcce nga ko. la. leneen la mhm. moom rasulullaay niveau la leneen la sëñ Tuubaa bu daan tagg yonent da koy génne ci nit mhm. da ko wax ni yaa ngi jiitoo ci biir jiitug yàlla gi mhm. parce que dara nekkul yàlla rek a fi nekk sëñ Tuubaa ni yonent bi xaddamta bi taqdimil ali yaa ngi jiitoo ci biir sëriñ bi septième ci njëb ñoonu la ñuy jébbaloo ba at mi delsi ba at mi delsi bi at mi delsee nag koor gi delsi quatrième jour la gaynde ga ñëw Cheikh Ibra Fall Abou Ridial quatrième jour la ñëw bari mhm. waa nag kuy waxtaan mhm. danaan ñaar fukki fan la Cheikh Ibra Fall ñëw mhm. Mbacke Kajoor maam Cheikh Ibra Fall ñëwul Mbacke Kajoor ñaar fukki fan maam Cheikh Ibra Fall quatre jours di bisu àjjuma ci weeru koor la ñëw Mbacke Kajoor def une semaine gisee ak sëriñ bi wax ak moom sëriñ bi àllu tëju une semaine muy seize jours dimanche di vingtième jour ñëw xoolal bu àjjuma nekkee quatrième jour dimanche ñaata jour lay nekk contrat bi nag ñoo ngi ko signé ci vingtième jour ba. loolu mooy dëgg. waaye nag ñëw gi moom ca quatrième jour la am. bi ñëwee nag. moom moo leen xamal ni kii du ñun du moom. maam Cheikh Rafaal. ñam fa jotoon a fekk. moo leen wax ni. kii néegam bii rek ku mu woowatul doo fi dugg. kenn dootu toog ci jotaayam tàllal say tànk. kenn dootu ko nuyoo benn loxo daam ji muy bind kenn dootu ko abdu ci bind. ku ko jox loxo danga nga fexe ba sukk sa ñaari ba tiwoom su jóot ci loxo bi yooyu maam Seera Fall fa indi ay directif am taxaw assumer ay responsabilité ba loolu am ci kër Sëñ Tuubaa moo jàngal ñëpp naka la moo tax mu daa wax ah doom ku am na ma sant ku ñàkk na ma xaram lépp mën a maa xam le woon naka la ba ñëpp xam naka la te xaj bi ci bokk sax du ma rek di la xamal naka la boo koy Cheikh Brafal Abour Diar moom rek waxtaane ko xajul ci temps bi mm-hmm. waxi mbiram it xajul ci temps bi waaye mag ñi. Mm. dafa nekkoon ñu baree baree baree baree bare mm-hmm. mm-hmm. te kenn ku nekk sëñ tubaab def na ci yow yàlla. Mm-hmm. jëmm yii ma la wax. ni la ñoo bokk euh, semaine bu nu wàcc liggéey. bi maam Thierno Ibrahima Fati. ak sëñ Mor Absa ak sëñ Dame Abdourahmane bi ma la doon sëñ Tuubaa moo leen ko wax. dañoo toog ci kanam kanamu leen seen jotaay bi neex na ma de. ñu ngi teg mu ni leen Thierno Cheikh Ibrahima Fati bi mu ni ko bindal jamaa. moo bind mu daa boole seen mbir nu ngeen koy firee moom jamaa mu ne ko boole na dajale na mu ne ko noonu la yàlla boole seen mbir sans borom xamal na ma ne seen yetti kër yi hmm? mooy ñett wala wax ku nekk hmm. benn fan la rawee hmm. mu ne tekk mu ko ndax xam ngeen yéen bokk at mu ngeen ñibbi àjjana nga ñuy dund nekk ci seen digg jamono ngeen leen yéen bokk at mu ngeen ñibbi àjjana ñu ne tekk mu ni kuy bind ceerno lu muy njëkk bind comme jamaa la ko bind loo woon maanaam ceerno ni ko jiim bi mu ko nee jiin mu ko kon bu admitaroo yaay njëkk a dem comme comme yow sa tur moo jiitu. chiffre bii commencé sa tur jiitu. daal di ko kuy bind Momar Habsa ana lu mu njëkk a mu ko miim jamaa gi mooy deuxième chiffre bi. kuy bind muy njëkk a bind. mu ne ko jiim. mu ko boo demee Momar Habsa door a dem. Mm. daal di ko kuy bind Abdourahmane ah. ayin ku bind Abdourahman lu muy njëkk a bind ñu ko ayin mu ne bu ngeen demee Abdourahman door a dem mais li ci gën a garaaw ci affaire bi mhm. mooy yàlla gi Sëñ Tuubaa doon def ci mag ñi mhm. bi nga xamee ne at mi teru na en 1943 ki mu waxoon mooy deuxième moo njëkk a dem mhm. ki Sëñ Tuubaa wax deuxième dafa xëy faatu yor yor doom ko ci néegam defar ko ba mu jekk di xaar jant so ñu ñëw laxas ko sàng ko ngir yóbbu ko dem woo bokk yëpp ñu daje ci kër gi jant bi so rek ñu ubbi néeg bi fekk ko mu toog wa rabbul kaaba billaahi wa rabbul kaaba mhm. sëñ Mor Ab Salo mhm. ñu ubbi néeg bi fekk ko mu toog hmm? doomam sëgg ci noog bàyyi bokk yi fi daje yëpp dañ fee daje ngir gunge la ci xabru yi ndax da ngaa wàccoon liggéey ci yor mu ni ko wax nga dëgg kay damaa yàkkamti woon ba bëgg dem waaye ma fàttaliku ni sëñ Bamba dañu woon at mi cerno ciy njëkk a dem ma door a dem ma bëgg nekk bu cerno demee ma door a dem laa ilaaha illallah muhammad rasulullah waaw ku say dongo dem ba yegg ci mën a dekkal seen bopp mhm. yow kan nga hmm? kan nga sëñ Tuubaa loolu nu mës a misaal lu mu loolu mën a misaal nit ñi nii nii mm-hmm. yàlla da lay dimbali ci moom rek mm-hmm. nga yegg si niveau bi mu nekkoon mm-hmm. mais du luñ mën a misaal. parce que bi rang wu gën amee ci gaa yu baax yi rang gënante. ñuy gënante. dafa wax ni yàllaa bëgg ma gënante moo gën ñëpp ci biir gënam gi dama dugal gënante wu ma. jeex na demal ci alxuraan suuratu <laughs> Israa saaru riñaan nga yàllaa wax unzur kayfa faddalnaa mhm. ba'dakum alaa ba'din wal aaxiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila bàyyi sëñ Saliou Mbacké ñëw ni tafdiilu zil qudrati wal iraada. Hmm? faddalani yàllaa bëgg ma gën mhm. waxuwa lii araada mooma mooma dugal ci biir gënam gi falaa gëne mhm. kenn musta gis li kon gënantewul li mu amit ab yonent sax mënu ko woon a am mag nag soo waxee ay waxam danga ko war a leeral moo ko moo nu ko wax moom mm-hmm. li mu am yonent munu ko woon a am mm-hmm. ab yonent munutoon am li Sëñ Tuubaa am mm-hmm. moo nu wax ni lahu xitaab yi jàkkaarloo nag sama borom xablu rabbi habli avant yàlla jox ma maa lam yakun li saalihina xabli li nga xam ni kenn ku baax mus koo am yonent yi ñoo gën ci nit ñi te yàlla moo nu wax ne yonent yi ñooy saalihin yi mu ni maalam yakun li saalihina qabli mhm. da ngay dem suratul lanaam mhm. aaya 85 sëriñ sans borom yàlla moo wax ni ñoom yonent yi ay saalihin lañ mhm. kon sëñ Tuubaa bu ne li ma am saalihin yi ma jiitu woon amuñ ko yonent yi jiitu muñ koo am yàlla wax ni wa zakariya wa yahya wa isa wa ilias aaya 85 la na am kullun ñoom ñëpp mina saalihina ci saalihin yi lan bokk sëñ Tuubaa ni maalam yakun li saalihina qabli moom xaadim rasul kon kooka la yàlla jox lu mu joxul kenn. Mhm. baat bi ñuy wax dafa siiw ba mel ni lu oyof waaye oyoful lu mag la. Mhm. mooy ilayya xaadallaahu maa lam yakun dafa mel ni foofu lañuy ñuy tàggoowee. yàlla wamat na. Mhm. jëmee ci man lu mu mës jox kenn. yàlla bi muy wax ni moo na jox àdduna ak li ci biiram. moom yàlla ca laan. saar wa njëkk ci alxuraan baqara. gannaaw fatiha. yàlla bi muy wax ni moo jox adduna ak li ci biiram mm. benn maa la utilisé wax mm-hmm. ni huwa allazi xalaqa lakum maa fi l ardi jamian mm. yàlla mooy ki nga xam ni mm. moo leen bindal li ci biir ah, suuf si yëpp li ci kaw suuf si yëpp mm-hmm. te benn maa la utilisé kon benn maawu suñ tubaa boobu maalam yekku ni nañ ko taf ci maa googu loo gis lu suñ tubaa am te keneen am ko da cee bokk waaye du moom. tey xaadimal mu doon kenn xamul nu mu. tey xaadimal war a tàggoo. li ñuy wax ak li duuf ci nag bi xajandoowul ci cin moo tax dañ koy dagg dagg. wallaay wallaay wallaay kon war a tàggoo. fa tabakalla macha allah bisimilah sëñ Saliou. ñu ngi santaat Cheikh Ahmadou Bamba bu baax a baax. Mhm. di bég tey sant yàlla. Mhm. ci boole gi ñu boole ci moom. Mhm. ndax wóolu baax na waaye wóolu lu wóor a gën. te dafa waxoon ni mboolem ñi jëm àjjana maay fanaan ci seen xol yi qulubu jumlati lazina aflahu li yatawajjah wa rabbi muslihu yàlla signé képp ku war a dem àjjana mën ngay bëgg àjjana it ña fa war a dem bu yomal xiyaamee seeni kanam dañuy weex Sëriñ Tuubaa nee na ku ma bëgg booy dekki ni kanamu sahaaba yi mel dinaa fexe ba sa kanam mel wajhu lazi yuhibbu nii yabyadu yow ma wujuhi suhadaa tabyadu ku ma bëgg daal bu yomal xiyaamee doo bokk ca borom kanam yu ñuul yi da nga bokk ca borom kanam yu weex yi kon ku bëgg sëñ Tuubaa rafetal njort ci sa bopp ci sa diggante ak yàlla te góorgóorlu nag mel ni mu bëgg xam nga lu tax nu war a góorgóorlu mel ni mu bëgg ku am benn bët di ko xool ci benn wet boo bëggee mu gis la da ngay dem ca wet ga muy xoole ko xaw sëñ Tuubaa lislaam rek la xool bu baax mësta xool safaan maa ngi santaat bu baax tey gërëm tàmbalee ko ci njabootuk Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim ba ci kër sëñ Motola waaye tàmbalee ko ci njabootuk Serigne Momar Diarra borom saam ba ci njabootu ma Massamba mbooleem ku bokk ci ahlu Mbàkke mbaa ngay mbaa nga sant Fall mbaa jenn mbaa ngay seex bu suñ tubaa seexal sa maam nu ngi lay ziara tey feddili sunu taalibe ci yow ndax sëñ Fallu mbakke daa waxoon ci seex si ni ngërëmul sëñ tubaa li siti la mel siti nag ku ko am sa doom day am toppum siti waaye bu sët bu ñëwee rek amaat siti <laughs> dalay topp njaboot dalay topp waaye nag di beral ziar <laughs> sama wasila Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom mhm. makaarimul axlaq macha allah day ku nu mhm. ndax ci dëkk bi ñuy waxee lii la ñu gënee jamono mhm. màggandoo feek gone yi fi nekk defandoo feek ñoom li liñ fi defandoo mu xëy détourné nu def na ñuy wax ci sëñ Tuubaa kenn dul dindi kooku nag lu nu am ci yàlla moom. ndeysaan mhm. ñu ngi ñaan yàlla yàggal taxawaay. visière bu baax a baax ñu ñaan yàlla wéral ko. visière bu wéral ko ak bëggam nu kawe njortam. moom mbooleem ku mu jaboote. amiin suñu jigéen yi ca kër ga. ku mel nii soxna Maam Ami Mbàkke soxna Fat Bintu ak mhm. soxna Lika Mbeng jërëjëf jërëjëf jërëjëf waxtu wi dab nañu feddali sunu taalu bi ci ñoom di ñaan yàlla koo xam ne dégg nga kaddu gi mu doon ci yow faju aaju adduna ak alaxira soxna maam Faati Mbàkke xar la ci barke Seydina Muhammad lool lool wallaay wallaay mhm. xanaa damay def ni li Carlo wax rek mhm. sañ-sañ la ngëm-ngëm la dëgg la Bamba ci xol daal leneen da xajul pas-pas la non Carlo fi mu ñu génnee fan yi man dama koy déglu di jooy xam nga man moom temps yi mhm. euh, man dama yàgg di toog di ko déglu muy waxtaan waaye tey ji dolliwaat na ma leneen lu bees nañu xam ne daal ñoom ñi fi jaar ñëpp bégal nan nu xanaa ko yóbbante sama ziar ci Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq moom mu wax ndax xam na ma fi ngan gu rëy ganale ma teral euh, diggante bi ba mu yomb maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp kon waaye nag xanaa di nuyuwaat bu baax a baax a baax euh, mat leen mi nga xamante ne Madoo lañ koy wax mu nekk fële ca Mali yàlla na lépp sedd guyu taa tey moom a génnee fi ah, yónnee ma cub gu baax gi ne ma ci illaa Touba gi lay jàpp te def na yeneen ñëwagul waaye Olimata mi ko ñëw bañ ñu ko ñaanee zéro accident yàlla nañu ko yàlla defal ñëpp nag yàlla defal leen li Oustaz Alioune Sall di wax xéewalu poche ak doole ba nu mën a dem dellu si waat mën a joxe addiyee ndax ñun loolu rek la xam xanaa nag di wax imam Pape Samba ne ko tey moom ah, happy birthday happy birthday maa la ko jàppalee ci anniversaire bi la bokk waaw fii la bokk imam Pape Samba <laughs> di nuyuwaat ñëpp ñëpp la bokk mm-hmm. ah, ba bi ñuy santaat yàlla julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah masha allah àndaat rek ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziarat kilifa diine yi mm-hmm. di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah ñu remercier bu baax a baax euh, sëñ Saliou Samb mhm. waaye euh, ñi nga xamante ne saa su nekk ñoo jàpp ci combat bi gis nga numéro baa ngi nii sama mhm. doom bi fa tabarakallah macha allah euh, maam Diarra fa tabarakallah macha ñu ngi koy jox ma wàcc waayam ak waa Lissa Couture yëpp mhm. sopp sëñ Fallou ah, gis nga ko Kiné ak Diarra ñu ngi kontaan di nuyu sox soxna Ndey Liisa ak Adja Ajaratu a Silla mhm. Silla Maxtaar fa tubaakalla macha allah ñu ngi koy jox wàccoyam ndax kii euh, sama doom bi ma ñëwal maam Jaara sëtam la euh, fa tubaakalla macha allah di nuyu waa centre de santé bu euh, bu Cambérène yëpp ñu ngi mhm. leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay xanaa rek jaale sama xarit madame Dieye Ndey Kumba Diop mi nga xam ne gorom moo wàcc liggéey tey Adja Fatou Sarr dëkk mhm. ca Fass ca wetu travaux communaux bi Diop fa tubakàlla macha allah wàcc liggéey ah, di yëkkatiwaat rek baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiwun mhm. santaat yàlla mami julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mhm. di remercier bu baax a baax tamit waa salon Déguène Chimère ñi nga xam ne ñoo kii loo mhm. euh, la R ah. plus 5 waaw ak garage bi waaw ñi nga xam ne ñooy def chignon yu baax yeeg ñoom seen nga xam ne ñàkk leen fréquenté erreur la laaj ma li neex on off nee day wan xarañam on off yaa ngi wane xarañul dara ah waaye. man pour man temps yi kenn rek xarañ. pourtant jël na signon bi de. ba fu nekk léegi léegi mu géej. temps yi Abdoulaye rek xarañ. <laughs> Abdoulaye mi nga xam ne ndox sax indiwu ko ak gan bu am valeur bi ma am. nga bu ko fi tudd bu ko fi tudd Ndoye Bane fu mu mën a nekk. ñu ngi koy ziar di ko remercier fa tubaakalla macha allah di leen jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla beneen émission wareef yàlla suñu borom bi def dégg ak topp ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi yàlla bu ilaa Touba ilaa Touba sama rakk ji baara lay ñaanal bu fi amutoon ba tey maa nga dalal xel waaw baara Diop yàlla na la yàlla fay amiin amiin ma yàlla bëggee rek na ma bàyyi ak samay rakk amiin amiin amiin <laughs> ani dut sow le régisseur ñu ngi koy jox wàcc waaye moom tamit kon à demain incha allah jërë ngeen